موئل يرعاه بالحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استحنك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلى عليك وأسلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد lazi jaxaltahu rahmataka lil aalamin wa jaxaltahu miskal xitaami li zahiril mursalin wa baad bokk yi ñuy seetaan te di seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellusi nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baal àq di amaat yéen bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñoo ngi fas yéene ànd ak yéen ci tomb waxtaan boo xam ne ñi ngi ko tibbee euh, an nizaamul alami lu jadid nizaamul alami lu jadid mooy tëralinu mondial bu bees bi wal ordre mondial ñu tiitaree ko ndax loolu dëgg la wala ay gént la euh, lu tax ñu ne dëgg la wala ay gént la ndax lu mën a nekk la ndax nekk na ba pare ñu bëggoon xam nag lan mooy nizaamul aalamil jadid boobu définition bi mooy lan ak nizaamul aalamil jadid boobu mustalaa boobu terme boobu kañ la am loolu nag nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaanee am na ay tomb yu bari yoo xam ne fas nañ ko ci yéen a teg ci waxtaan woowu ñe façon contacté woon ci ay borom xam-xam ki jiitu ci ñooju mooy Jean-Louis Camara egsi na si jataay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coono déplacement bi contacté woon ci it gëstukat boo xam ne xelam màcc na ci loolu ñu di ko tuddee xat fakka xub la sëy mu jógee ko ca Touba yegg see na ci jotaay bi ñu ko dalal jàmm kon gannaaw bu leen présenté suñu gan ñu baax ñi ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ñoo fekkee jotaay bi ñu ngi ñaan yàlla leeral seen làmmiñ ba liñ mën a bëgg a jotal ñu mën ko jotal ñaan yàlla it ñu am ci ndam euh, sanli li gannaaw bu leen yow nuyoo balu la ak baal la àq euh, di la siyaare ci àjjuma ji Eh, kon boo nuyoo bokk yi dañoo bëggoon nga yóbbaale laaj bu njëkk bi li ñuy tuddee nizaamul alami juddi muy nouvel ordre mondial loolu buñ la laajee définition bi mooy lan lan nga ñuy wax ak terme boobu kañ la am ci àddina bi allahuma salli ala sayyidina muhammad wa muhammad bismillahi rahmaani rahim bi ma la santee gërëm la ci invitation bi hmm. nga ñu invité pour ñu waxtaanee ben questionnement bo xam ne bu am solo la dañu koy ragal tax parce que dafa yimu mu mo bare c'est une question redoutée et redoutable ba waxé waxee ba paré di ma ngi nuyu sama mbokk mi jógee ba Touba euh Imam Sey diko wax ni xamna suñu waxtaan bi mais lu bax rek ci jëlé té ñi ñi seetaan dañ ci am njëriñ parce que liñ fi dajalé la yëpp mooy pour jéem a ci niñ ko déggé ñun mais nous, man ak yow ñun nous avons ni nous ñu ñuy sétal ño xam question ci ëpp xam-xam mais peut-être dañu nous occasion ñëw ci télé yi ak ci yi di wax ba da nga ni ordre euh, réalité ou utopie illusion mm-hmm. De point d'interrogation ça veut dire que da ngay laaj la ordre mondial bi ñuy wax nouvel ordre mondial ndax am na wala amagul. Mm-hmm. bi ñu nee ordre mondial nouvelle ordre mondial rek tekki na boppam nouvelle mooy lu bees. Mm-hmm. ordre mondial mooy ni àddina bi doxe mm-hmm. ndax na mu daan doxe lay continuer di doxee wala dañuy wut beneen doxalin bu baax bu bees. li tax ñuy wut beneen jëfalin bu bees ça veut am na ci lu ñu lekkoon ak ci lu ñu nekk ba tey ñu gis ni ci ordre bii ñuy doxe xeyna fa mu ñu jëmee droit droit dans le mur la maanaam fa ñu jëm baaxul parce que ñëpp fi mu ne ñi ngi joy ne ordre bi dal du ordre bo xam ne mën nañu jëmee fu baax. Hmm. muy ci suñu dëkk yi di dëkk tuba bi du dëkk fu nekk on se pose les mêmes questions. Hmm. nan lañuy def nak légui pour jëlat benen ordre un nouvel ordre mondial. Hmm. comme liñ koy waxé tant que xamuñu ordre mondial bi ñu nek wala bi nga xamné yag na fi te mu ñuy def ba légui indi ñu ay crise tank xamuñu lu ko indi tank xamuñu lan lañ ci doon wut ak lu mu jël ba ñu agsi ci fi yaakaar naa ni dañuy kon marcher dans l'internet parce que ni ñu koy waxé lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir mais l'esprit marche dans les ténèbres manam mm-hmm. démb du fekkee du lampe buy leeral suba mm-hmm. kon nañu xamné ñu ngi ci lëndëmte mm-hmm. pour bañ lool nak ordre bii ñu nekk ba indil ñu crise il faut nga wax nu mu demee ak nu ñu ko tëralee mhm. cest à man dama koy tàmbalee ci 1885 hmm. c'est-à-dire avec le congrès de Berlin mooy bi tubaab yi tegee carte àddina bi yëpp du Afrique rek ak Amérique latine ak fu nekk daal di jël ay régal ku ne ni maa moom pàcc bii fii maa ko moom fee maa ko moom hmm. looloo indi sans tenir compte des réalités sociologiques looloo indi yow bi tey hmm. da ngay dëkk ca booru Gàmbi am sa doomu bàjjan wala sa doomu nijaay. bu nekk ca boox bee ngeen daan bokkoon benn dëkk bi. ngay ñëw léegi mu ni la moom Gambien la yow ngay sénégalais. moo tax ci suñu dëkk yi rek ngay gis véritablement des frontières extrêmement rectilignes jub xoj. ba ñu koy teg boobu nasaraan yi ñoo ëppoon doole ci àddina. la leen yëkkati woon it ku ne xam na ko parce que wax nañu ko dañu dañuy civiliser ji ñi nga xam ne amuñu civilisation maanaam. comme nous, nous sommes des euh, des sauvages et des et des barbares. ci loolu ñu nous adina diko doxale nu mu 1885 nous def le congrès de Berlin. une génération rek première guerre mondiale am nous ñom ci parce que dégo yi ñu dem ci pour régler de problème guerre mondiale 1918 Nous avons ci 20 ans seconde guerre mondiale La seconde guerre mondiale nous ba mu

vers la fin des années 70, Moi, deux événements marquants qui ont changé changer véritablement le monde bipolaire ni mu le premier événement qui va marquer durablement et fortement c'est-à-dire l'ordre mondial c'est la révolution islamique iranienne de 1979 ça veut dire quoi ça veut dire gis nañu donc un peuple un peuple ni dootuma doxee ci ni ngeen bëggee ñu ni ko nooy ni damay dem ci samay pas-pas samay gëm-gëm muy lislaam ak aada yu baax yi maam ci pour doxal sama ordre réew ñu ni xëy na day wax ci la ni ku ne dégg ni est nii ouest Dieu ñu ni ko préciser sa pensée eh bien nous allons mettre en œuvre véritablement les principes les valeurs et les normes de l'islam moom la ça veut dire quoi l'islam d'autres mënuñu dootul a ak mais l'islam c'est une spiritualité politique et sociale maanaam na mu meloon ci bi l'islam day un instrument pour jullit bi pour dundam mën nous neex ñu en même temps un autre événement concomitant de dëgg fàtte bu am importance pour la première fois dans l'histoire du catholicisme ñu fol pape qui a ni mu nga pays de l'Est de penku Jean Paul II du polonais mu cette période le le syndicat solidarité di yëngu ca en Pologne parce que Pologne ak Sénégal dañu xaw niroo tout. malgré que Pologne le communisme est jiite mais nit sommes ci seen biir dañu église catholique c'est des catholiques fervents Mais ngi mel au Sénégal actuellement on se dit gouverné par un état laïque mais la société sénégalaise pour fondamentalement elle est religieuse et islamique Pas y jox un coup de pouce au syndicat solidarité Moi, je wolof di wax euh, lire du fait fecc ya y ya jaté ca ca wagg ya ca mbagg ya bi mu pousser solidarité bobu première fissure am ci monde communiste yeneen pays diko topado ba ñu ñëw ba 1989 il y a eu la chute du mur de Berlin 92 dislocation du monde soviétique automatiquement Occident daal ni léegi nag c'est la am ñu juk ci ñom ni c'est la fin de l'histoire manam adina ben tank lay doxé légui dootul doxé ñaari tank te tank bi muy doxé moy tank bi nga xamni non la ko tuba ba jafe woon depuis 1885 c'est-à-dire la suprématie mu neex mu naqadi des nations européennes ou des ou du blanc sur les autres pays ñee parewu mhm. parce que dafa am solo waaw démé di continuer Occident fogg ni le monde biñu ñu le monde sera unipolaire ñu gis ni

l'Occident aujourd'hui, Occident, parce que nous l'avons est confronté à quatre défis majeurs. Trois défis, c'est sur le plan militaire. La Russie, entre-temps, a conçu un stock militaire extraordinaire. Que nous, nous savons, autant que nous les États-Unis sont rek Russie du taxawam Europe yëpp benn bés la leen la preuve léeg que euh, Donald Trump man suis neex na les léeg européens et eh da ngeen di yok contribution wala man ma dem sama yoon nga gis ñom ñëpp ñu dal di tiit jaxasoo kon un défi militaire le deuxième défi c'est le défi économique et financier porté par la Chine ku ne xam na ne ci adina bi Chine c'est la deuxième puissance mondiale financièrement économiquement Ta amna ay xayma yo ne na ni duñu continuer ni dans 50 ans à supplanter les États-Unis et ça veut dire quoi Ça veut dire que donc l'Occident va perdre sa suprématie en 1885 la ñu tegoon. ñooy Nous xam nga kon nous day day day basculer wu. xam troisième défi bi nga xam ni c'est un défi majeur c'est le défi de la révolution islamique iranienne bi nga xam ni mu neex mu ça impacte complètement et durablement le système mondial li la koy c'est même ci suñu 79 mais 1980 xool ko dama ne la bàyyiwul àddina 1980 la Senghor démissionné non. on a beau dire que Senghor oui, les événements de Morovia, xam nga coup d'état bi mais écoute tant que yow islamiste bokk gens ci yëf yi temps yooyu ku ne gis y avait une remise en cause fondamentale du caractère laïque de notre état temps yooyu ñoom pas surtout avec l'organisation de l'action islamique avec yeneen Ibadou, nous avons ñuy jóg di la laïcité de l'état temps yooyu dooy seetlu ci biir réew mi daan nga dégg ay kàddu yoo xam ne am na wala amul mais daan di jib mooy lan Senghor kat dafa dig tubaab yi ni mënuñu def chrétien mais danañu def de mauvais musul musulman dañ ko daan dégg ci la démissionné nga xam ni boobu boog le troisième parce que défi boobu li tax mu metti moo di dafa ni Occident déedéet régal yi nga teg man duma ci topp

lu mel santé lu mel na éducation yooyu secteur yooyu yëpp mu délaissé ko ni secteur yooyu kenn war la pandémie bi ñëw démontrer le contraire et montrer même l'impuissance de ces pays occidentaux face à la pandémie euh, du coronavirus du Covid 19. jërëjëf euh, sans sans lii dinaa dellusiwaat ci yow. loolu dinaa dellusiwaat ci yow. voilà euh, mais fi nga daaneele mhm. fi laay joxe xalaat. li ñuy waxtaanee ti muy nouvel ordre mondial. Mhm. bu fekkee dégg naa la wane nga ne 1885. waaw mel na ni ci la gars yi tegoon xalaat bi. Eh, tegal ko nag plan boo xam ne bu sori la. ci seen gisin. jàpp ne buñ ci yàlla demalee bañ yegg ca. dañuy téye àddina bi ci seen loxo. di ko contrôler nañ ko bëggee. Mm-hmm. ko bañ ak ko nangu. Mm-hmm. mu mel ni ñuy dox di dox di dox di dox ba si mu yàgg Union soviétique daanu. Mm-hmm. bi Union soviétique daanu ñu gis ne kon mel na ni mbir maa ngi gën di leer. ñuy dem di dem dem ba si yàgg révolution iranienne yi taxaw ayatullah Khomeini déclaré état islamique ci lu kenn xalaatutoon ci Iran gannaaw boo xamee ne Sadio Iran moo fa nekkoon Iran ñu doon ko jaawaleeg aljanna ci kaw suuf mu xëy daaneel loolu yëpp tey wane ne kàddug laa ilaha illa moo fi nekk ñu ne mënul nekk ñu dem ba mujj gi ñu dugal ko ci guerre diggante moom Saddam Hussein alors ñuy dem di dem di dem ba si yàgg mais ci gàttañal su ma la déggee fi nga daaneelee dafa am ci lenn ci gëstukat yi ñu wane ne nouvel ordre mondial. gannaaw bu corona bi jeexee. Covid 19 bi ci la ñu door a xam kat moo koy jiite ci la ñu door a xam it ndax am na wala amul. moo tax ma ne fi nga daane itteel na ma torop jàppal ma foofu xëy na dinaa dellusiwaat foofu ma xam da nga ci d' gaa yi wala doo ci d' accord. ba tey rek euh, euh, ma ñëw ci yow même question bi euh, lan mooy nouvel ordre mondial ak terme bi kañ la existé ci àddina bi. asxaabi ajmain jërëjëf sëriñ Cheikh Tidiane bi tey maa ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu suñu mbokk mi Jean-Louis Camara euh, di nuyu mboolem ñuy seetaan euh, DTV rawatina émission bu am solo bi di ëttub islam euh, sa bi muy nouvel ordre mondial mooy lan ak kañ la feeñ mm-hmm. mu mel ni bu ñu waxee nouvel ordre amna ancien ordre bu fi nekkone te it ñi ñiy dox pour tek nouvel ordre mondial war na leena laaj lutax ñu bëgge fee jële ordre hmm. bu fi nekkone hmm Cheikh Tidiane bu yalla bindé jamono ak légui ñaar ñaari ordre rek am moy ordre bu yalla tek ak ordre bu iblis bëgg a teg hmm. eh, nouvel ordre mondial hmm. euh limi wundu ak liko taxaju moy soppi li fi yalla tek euh tele yalla tek teg wul lut euh bindu do doomu aadama wàcce ko fi euh ngir ñu jaam ko waye nek ku kuutaayam ci kaw suuf nga xamni yonent bu yàlla mos a yónni ñoom ñëpp maase nañ ci wax joo xamanteni euh ya khawmi ubudullah malakum lakum ghayru jaamu yàlla amul amul jeneen yàlla jurul mom hut lol la waxoon aw aw xetam wa ila aadin axaahum hut khala ya khawmi ubudullah malakum lakum ghayru Euh, nuuxit loolu la waxoon aw xeetam fa arsalna fihim rasulan minhum an ibudullaha ma lakum min ilahin xayru ku mus a ñëw ordre boobu ordre boobu nga nga nga nga yore kon yàlla binduñu ngir jox ñu ordre ñu jaamu ko waaye dundal euh, suuf nit ñi war xam ne xikma bi tax ñu binduñu kon mooy mboolem suñuy tëralin suñu nidaam suñu système économique social système yi dox ci suuf yëpp mhm. dafa war a ci fondement boobu nga xamante ni mooy wéete yàlla ci kaw suuf mhm. ak lu nit ñu da ko defee ni yàlla bëggee mhm. euh, nit ki tamit war a nekk ci àdduna bi ordre ne xam ne moom jaam la yàlla mooy jaam bi euh, ñuy dox ba jëmmi jamono euh, am ñoo xamante ni dañoo jug pour contester ordre boobu mooy li yàlla bëgg ci kaw suuf ñooñu ñi nekk ci bopp bi bopp bu nouvel ordre mondial dinañ ci ñëw ci ay saxsiyaat ay personnalité ñooy yahud yi boo waxee yahud yi nag juif yi mën ngaa tudd seen doom jii di franc-maçonnerie wala ngi tudd séhiyuune mooy séhiyuniste yi wala nga tudd seen fët yii di eh, ñu di tudd ay les illuminati nga xam ne yow suñu Seex Tijaan nii ngay demee ci jàkkari jaamoo yàlla di ko sujjóotal ak rukuwaal ñoom noon noonu la ñuy demal Iblis. di ko ko rukuwaan borom xam-xam yi bu njëkk jàppoon nañ ni eh, jaamu iblis mi ngi ci mooy ndigali yàlla yi ak yu ne demee waaye léegi jaamu xaqiiqiya la ci ñi woote noonu ordre mondial bi hmm. ak kuréel yu mel ni yu bëree bëri mën nga leen a tudd yoo xamante ni ñoo jug ngir teg beneen ordre mu ñuy tudd ay Buhaymi Club munazamatul jumjuma wal izam hmm. eh, bu dee Buhaymi Club ak eh, School in Bonds mooy munazamatul jumjuma wal izam ak kuréel yu bëri nga xamni ñoom dañu bëgg tek nizam bo xamni day dox fenoo ni seen yalla ji bëgge ndax noël ordre bi am yalla, mais yalla joju du yalla Ibrahima du yalla musa du yalla Isa du yalla Muhammad hmm. Yalla joju ñu bëgg doxal ordam moy yahwe mo yalla ji nek ci tawrat tawrat boobu nga xamante ni bokkut ak bi yalla wacc woon ci musa hmm. wala nga ni Lucifer hmm. wala nga ni bafomet moy Iblis sallallahu alayhi euh, xam nga waxoon naa la ci tàmbali bi nii yàlla moom yonent bu musa yónni rek lim lim leen di woote lool fondement bi mooy ñu jaamu yàlla wéetal ko bañ ko bokkaal mais ñu woote newel ordre mondial am na yàlla yun jàpp ni il est le grand architecte de l'univers non ñoom fondement bu leen dikk daaj yi jàpp ni iblis huwa muhandisu kawn ñu jàppe iblis moomu ñuy euh, bëgg a doxal ab ordam ilaahu nuur ci la les liminati jële seen tur wi ak nuuraani yoon tudde ko ilaahul xayra yàlla ju baax ji yàlla jin gëm ñun yàlla ibrahim Moussa yàllay dëgg ji nga xam ne mooy ba dexo sama waate wal ard ñu tuddee ko al ilaahul xafi yàlla ju nëbb ji tudde ko ilaahu charr ñu baal ma yàlla ju bon ji tudde ko ilaahu zalaam yàllay lëndëm ji mhm. léegi nag pour nga xam nouvel ordre mondial dëgg-dëgg mooy lan da ngay dem ci ñu ko woote euh, xam naa euh, Jean-Louis wax na 1885 mais man damay arrière tuuti dem ci euh, ki gën a siiw gën a mag te jàpp naa ni bu dee ci njëkk a tëral ordre bind ci pour ñu doxal ni nizaam nuuraani aalami nu ordre boobu day dox ci ni Iblis bëggee kooku ma noonu Adam Weishaupt Adam Weishaupt benn professeur katolik la woon euh, mujj gi ci milieu catholique la woon dund moom moo doon wax ni an na ayu insaan yumkinu an yaxsula lahu xuwa ala xuwatin tudaahi xuwatallah bi mu saadati seytaan nee na nit ku man di doon mën naa am doole ji yàlla am yàlla yàllay dëgg ji ñu bind asamaan ak suuf di dund rey ko dundal nee na nit mën naa am doole ji yàlla jooja ci ndimbalal seytaan otherwise home moom doole ji mu am ak pouvoir bi benn famille juif bi moo jiitu wala moo mujj moo moom a ngi ciy ñëw moom otherwise ah, home moom otherwise euh, home doole ji mu am benn famille juif bu ñu tuddee famille Rothschild ñoom ñoo ko joxoon nekk ci ginnaawam mu def juróomi at pour bind nizaam boobu

1776 la ko bind jàppal date bi bu baax. bi mu ko bindee 1776. Euh, fekk na nouvel ordre bi ñu ngi tabax réew moo xamante ni mooy ci ordre boobu muy États-Unis xam nga États-Unis 1776 la am indépendance te lu ko jiitu manam 1776 ay at lañ ci teg ñu créé dollar bi nga xamante dollar bi rek de ko jëloon leral nañ ci lepp niwul ordre mondial dollar 1770 la bind euh 8 août 1786 ñu gënné dollar bi njëkk 1 dollar bi lepp niwul ordre mondial mi ngi ci ta bindon nañ gënné won nañ téré bo xamanteni ni ngi ko tënkee won baat bi ngay wax muy nouvel ordre mondial nizam aalami al jadid ci 1er mai 1776 bobu nga xamni arab ni Adam euh pour ñu xam deug deug ki bi un dollar bi soo demee da nga ci fekk baatu nouvel ordre mondial mais grec lañ ko bindee loolu nag mën nañoo njaa laaj lan moo tax Amérique jël baatu grec buy wundu nouvel ordre mondial ñu def ko ci un dollar bi mooy no oldus krum ñi ngi ko def ci suufu benn pyramide mu leen di delloo ca alxadara firawna al misriya al wasaniya boo demee ca kaw am na bët bu fa nekk mooy lay de lose riif yàlla la woon ci kii nga xam ne ñoom foofu seen delluwaay la ñoom dañoo gëm ni ordre boobu ñu def ci suufu pyramide bi dafa war a dox ci borom bët boobu ci kaw euh, dollar mooy l'œil qui voit tout al aynu lati tara kulla shay borom bët boobu yàlla lañ ko def am na arafu G bu nekk ci dollar bi muy got même sax ñoom wax na ni yàlla jooju lan yaakaar mi ngi ci dollar bi ñu def ci in God we trust mi ngi ci biir dollar bi ñu bind lan mooy tegtale ni àdduna bi dañ ko bëgg a doxal xoola coïncidence yi 1776 la euh, Adam Weishaupt bind loolu ci la États-Unis am indépendance ca 1786 ci lan def dollar bi ñu def ci in God we trust yàlla lan yaakaar nu minu billah loolu lañ ci def mais yàlla jooju du yàlla Ibrahima du yàlla musa lu Lucifer la mooy borom bët boobu nga xam ne dañoo bëgg a te dollar mooy xaalisu réew mi ëpp doole ci nizaam aalami jadid boobu nga xam ne moo ko yilif tey muy États-Unis euh, beneen bi di ci gën a firndewu mooy réew moom di États-Unis boo demee lu ëpp ci jaamukatu iblis yi franc-maçon yi foofu la nekk ëpp na ñetti million ñoom ñoo def dollar bi gën a mag te fukk ak ñett yi signé indépendance Amérique juróom-ñett yi ay franc-maçon de 33 degré la ki njëkk nekk président États-Unis di George Washington euh, nga xam ne ci ñi doon wootee ordre mondial bi la non seulement waxuma franc-maçon franc délégué la woon mais bu doon comme li ñuy wax ñun euh, Moussa Faye Faye xutba la woon ci wàllu franc-maçonnerie moo doon xutba zamaanu jamonoom te moo njëkk nekk président États-Unis beneen firnde bi euh, mooy boo ñëwee ba tey ci kii bi pyramide bi pour wan la ne la ñoom dañoo bëgg soppi ordre bi fi yàlla tegoon. ci pyramide bi musallaf boobu triangle bi boo demee ci franc-maçon day tegtale démbu tey ëllëg bët bi tiim ko ñu wan la ne la Iblis mii il est le grand architecte de l'univers moo créé démb créé tey kooku nag leen bëgg a teg ab ordam kon ñoom bu nu waxee nouvel ordre mondial gundut lenn lu dut euh, te mi ngi ci maanaam ñoom li li nekk noonu jàpp nañ dañ ci am ndam bind nañ ko ci boo demee anit coptis boobu ñu ci bind mooy ñun suñu liggéey danañ ci am ndam léegi suñu Seex Tijaan laaj yi ñu war a laaj mhm. te mooy arab waaye suuf woote na loolu bind ko euh, maa ngi ñëw ñu bëri lan nag ndax moom bi mu bi mu bi mu bi mu deewee am na koo xamante ni bu fekkonte ni sañ naa wax ne xis bu seytaan ah ndax adduna bi ñaari xisbu rek fi xisbu laa xisbu seytaan xisbu seytaan boo amoon numéro 2 damay wax Albert Pike la ndax Albert Pike moo wuutu général Albert Pike moom rek la statèm nekk ci Washington moom général la woon ci armée confédérale bu Amérique nga xam ni euh, barabam dan koy ziar mu nekk benn temple maçon bu bu mag a mag moom moo créé mécanisme yi ñu doon teg pour tëral seen ordre boobu muy ñetti guerre mondiale ba ci Jean-Louis Camara doon wax mooy pôle yooyu ñu ñu fi yooyu yëpp ñoo ko ñoo ko créé ay mécanisme la woon yuñ teg pour euh, tabax seen nouvel ordre mondial boobu ba tey ci ñu woote nouvel ordre mondial bi hmm, te lu jiitu loolu euh, kii euh, Maye Rothschild waxoon na ni ku ku ku ku ku saytara ku yilif xaalis xaalisum réew wala aw xeet yaa yor ëllëgam te tey boo xoolee ordre mondial bi ki ko jiite xaalisam mooy doxal àdduna dollar mooy xaalis bi mu ci nii ci la àdduna bépp di di doxee euh, ma jël euh, Albert Pike moom ma doon wax léegi nga xam ni moom moo bind benn conspiration universelle contre l'islam muy mu amaratu Albert Pike di del islam wal muslimin hmm. ñetti gis nga guerre mondiale yi nga wax ñaari geer yi hmm. am na mais ñetti geer yi ni mu ko bindee woon boo demee ci bibliothèque yu Angleterre maam na mu ko planifié woon en tout cas ñaari moom ni la hmm. def ñetteel te guerre bu nekk ci visé loolu dañu ci ñëw bu ñëwee ci malaamix yi hmm. am na keneen ku ni wax euh, ci ñi wootee nouvel ordre mondial Karawli hmm. Karawli moom moo njëkk tabax église wala boog jaamukaay pour ñu di jaamu iblis bi mu faatoo dañuy tënk rek am ku ko wóotu ku ne wax Antoine Livni Antoine Livni Euh, moom nee na jàppewul iblis maanaam jëmmu juy incarné ay waaye yàlla la ñun war a jaamu mu bind benn téere bu ñu tuddee al injiilu seytaan yi leeral ca naka lan war a jaamoo yàlla jooju ci nouvel ordre bi muy iblis mu ne euh, injiilu seytaan yi représenté wul présenté wul maanaam léppi jaamu iblis waaye laytaay la ngir àdduna bi daj kat ak jaamu iblis euh, moom wax na ci téere boobu ni yàlla moo tooñoon iblis yàlla ne malaaka bu yàlla ne malaaka yi su jootal leen aadama moo tax ja moom ni tuddee jaamu iblis gi yëpp mooy kañ iblis takrim ko moo tax ñu ko wax yow seytaan ma batal yow seytaan ma jàmbaar xam nga loolu jàmbaar gi hmm. bi yàlla ne su jootal leen malaaka yi malaaka yi euh, malaaka yëpp nangu iblis bañ ñu ne ko yow batal nga jàmbaar nga ñu ne ko yow yaa émancipé jaam yaa leen goreel moom loolu la ciy leeral ah, am na keneen ku am solo ci ordre bi ndax loolu mënuñu ko waxte kii mooy ci euh, Herzl nga xam ni moom moo jiite woon les protocoles des sages de Sion vingt quatre protocoles yom ti nii bu ëpp waxuma bu ëpp benn bu nekk danger bi mu am ci islam mais danger bi mu am ci humanité puisque protocole yooyu nag ci lan ginnaaw adam waaye suxuub ah ak euh, Albert Paye nga xam ni mi ngi dee 1891 juróom ñaaree at 1897 lañ ci teg Cheikh Younis yi nga xamante ni ay jaamkatu bu lislaam ci lan daje ci baal ñetti téeméeri boromi xam-xam juif ci ay spécialistes yu wuute ñu ne nan dajaloo pour teg ay protocole yoo xamante ni dañ koy cibbi ci tawraat cibbe ko ci talmud pour teg protocole yoo xamante ni ni leen bëgg a doxalee jamono te du lenn lu fexe ba dominer àdduna bi di ko doxal ci ni seen yalla jooju nek ci tawrat beugé mu yahwe parce que yalla ji nek ci wu yahud bi mom du du ki ya-, du du du deug ji hmm. parce que yalla jojo xamé wu ko setan ni wax wahdatul uluhiyya wa seytaan soo rewé nang ko def ca yalla ay geer yalla ju ñak xam-xam yàlla joo xamante nii même yalla wacci wut ci ñom téré sax melalun ni yàlla euh, euh, ah ma daane fi kenen ku am solo la ki euh ci ci noël or mondial bi mooy George Bush père nga xamné bis ni ki tay 11 septembre hmm. 90 ci la defoon déclaration hein, euh, pour ñu gëna doxal noël ordre mondial bobu ñu tek ci 11 ans euh, 11 septembre 2001 domam ñëw puisque bi koy waxé nee woon ordre bobu dañ ko wara tek ci loxo ñu woor 11 ans après domam ñëw muy George bu fils ñu tek def ben xew-xew bo xamni ñoo créé de toute pièce al aalamul islami euh, takku ci. loolu bu doon waxtan wi mu ñew ñu créé seen attentat en septembre ci 2001 puisque bu fàtte ne waxoon nañ ni euh bi ni tek seen euh, takwim bi nga xamni euh mom lañ tek muy euh ana grégorienne nga xamni ay turu yalla xirim la feese dell newoon nañu bu ñu demee ba ci ñetteelu jooni at bi dañu wara baye ya, jaamu yalla ibrahim ak musa ak Isa ndax yalla joju yalla ju baax bu ñu ba ci ñetteelu jooni at bi parce que date bi ñu wax nii dara franc-maçon la de ñu ne ñettee lu junnaat bi bu buñ ci demee te xoolal ñetteelu junnaat bi mooy kan mooy 2001 ñu def seen attentat boo xam ni day so bouleversé ak doxalinu àdduna xam nga dañuy wax ni àdduna bi avant 11 septembre ak àdduna bi après 11 septembre bokkuñu ñu créé seen attentat pour gën a samp seen nizaam aalami jadid boobu te 11 ans avant bàyyu George buus mu mag te George Bush ma leeral leen ñoom sët la ci Albert Pike moom nga xamante ni moo rëddoon ñetti guerre mondiale yi première ba bokkoon na ci objectif bi gënoon a visé mooy tadmir al xilaafa al islamiya ak fexe ba juif yi am dawla fi qalbil uruba wal parce que loolu ci ci noonu ordre mondial bi la. xat euh, fàkk euh, bu ma la déggee mooy feeñal nga ne euh, li ñuy tuddee nouvel ordre mondial mooy soppi tëralinu yàlla. Mhm. indi fi tëralinu ay doomu aadama. Mhm. nga ne tëralin boobu nag suñ ko seetee juif yi dañuy tàbbi. dañu nekk doom ci loolu laïcité nekk ca doom zayoon ya nekk ca doom bon euh, li li nekk jaaxale pour man bu fekkee d'accord nañ ne mooy soppi tëralinu yàlla yëlëb loxob yàlla ci luy dox ci kaw suuf mm-hmm. andi tëralin boo xam ne dafa opposé diine l'islam opposé la ko dalee diine yonti yàlla Ibrahima mm-hmm. te diine yi fi yàlla yónni woon yëpp pour defar doomu aadama la pour defar dundu doomu aadama mm-hmm. lu tax lenn ci monde islamique dugg ci biir tëralin boobu kooku question bu may laaj la bon beneen bi mooy bu ñu la déggee feeñal nga ne 1776. Euh, mhm. mel na ni la tëralin bii feeñ ci àddina ñu di ko suuxat. dañ commencé na fekk noonu. waaw di ko suuxat muy jaat pion par pion ñuy dugal pion par pion ba mu yëg si bés ni ki tey. Mhm. Euh, fi nga daaneelee fa laa bëggoon a njëkk ñëw mooy ñu dem ba 90 George Bush dikk Irak. bi mu dikkee def fa lu mu fa def am ñu wax ne bi George Bush ñëwee Irak ci la nizaamul alami jëddu juddi juddu jëddiit te faxu muy nouvel ordre mondial ñuy dem ba tey di 11 septembre tey ji tombé ñu ci waxtaan defe naa 11 septembre bis ni ki tey lañ explosé woon seen bourse ba fële ci États-Unis d'Amérique mu tomb bis ni ki tey bii ñu def émission bi mu mel ni soo xoolee euh, tëralin yi da ngay xaw a am ak jaaxle li tax nga xaw am ak jaaxle mooy bu ma la déggee lépp la bi fa mel ni l'islam lennam nekku ci mais la ko dalee ci départ ba ca fin fa mel ni ñooñ l'islam seen jëmi bopp ñoom ñoom lañu tëm tëmbal ci biir xaw ma xam nañ walla xamuñ loolu loolu nuñ koy layee ñu koy layele mooy dafa am ay workat ci al alamul islami yi que sioniste yi bi ne dajee ci Bâle 1897 pour naka la ne def ba yahuud yi saytara adduna bi xamoon na ni mënuñu koo def loolu dañoo tadmiir al xilaafa al islamiya bi nga xamanteni mi ngi jëm won ci euh, euh, dawla usmaniyya bi sultan Abdul Hamid won euh ndax bu faté ni nouvel ordre mondial bi bokku na ci li leen gënoon taxajuk moy samp am réew fii uruba wal islam ta lolu sultan Abdul Hamid daf leen ko bañaloon mais xam nga nu def amna sax waxon nan ko ne ko ka ñu jox la alal pour nga bayyi ñu samp état fo muy den bu leen ma joxoon suuf si ba mu fees ak or ah lu tax ma bàyyi leen ci lan fexe ba euh, créer kuréel gu ñuy wax John Turk te am Moustapha moo tax gis nga dawla islamiya bu maandu boobu nga xamante ni moom rek moo mën a solutionné àdduna te Moustapha taxawaloon ko yonte bi salaay salaam mm-hmm. am Moustapha ko daaneel Moustapha Kamal Atatürk mm-hmm. moo folli ki mujjee ne xalifa julli ñi 1919 1924 mm-hmm. mu i'laan nihayatul xilaafa islamiya di mokke julli ñi ni mënuñoo topp ci téere boobu day wax tiin ak zaytuun ñu wëlbati ko dem ci mooy euh, euh, booba Arabie Saoudite wahaabi yi fi nekkoon boobu nekkul Arabie Saoudite ñu ñu xiirtal leen ñu tamarru di dal xilaafa yaa ngi dégg wahabiste yooyu nekk foofu ba pare ñu digg leen état ndax da ngay xool biñ leen fippuloo contre xilaafa al islamia ngir ñu tas ci umma bi ay duwaylaat ci lan daane xilaafa islamia réew mu nekk nag ñu samp fa seeni nit ñu dem ay Arabie Saoudite fekk ñoom ci ni amuñu taarix ci réew ma tekkiwul dara mais pour mën leen a manipuler ñu jox leen nguur ga yenn dëkk jullit yi ñu def fa ay militaire yoo xamante nii ci ñoom lan bokk parce que militaire moom du tarodd pour rey pour sàmmali seen intérêt yenn réew yi yu demee suñu réew yi ñu fekk ñoo xamante ni ñu leen jàngal jardin euh, jàngal leen primaire ba université boo leen ak ay jabar yu leen contrôlé ñu jox leen réew ya pour ñu doxalee leen seen nizam alami euh, jareet boobu kon ay jullit ñoo war tey war gi nag gën naa dëggu ci euh, taxawaayu ñii ñu am tey taxawaayu seen maam amoon démb ñoom lañ continuer di ko taxaw ci euh, xadaaya yi gën a yitteel islaam rawatina alxadiya almarkasiya di ummal islamiya te mooy alxadiya alfalastiniya tay jërëjëf euh, xat fakk euh, sëy ñu ngi lay gërëm mel na ni bu ñu la dégloo mel na ni jullit ñi fa mel ni ñoom ñoo jël paaka teg ko ci seen doq tey ñenn jullit lenn ci ñoom hmm. wane nga ne ak war moo ci tàbbi tàbbi ci war gi moo indi ñu fexe ba daane li ñu tuddee xilaafal islaam yi nga ne li kéemaane nag li fi nekkoon tudd lislaam ñu daa ko damoo di ko attewoo ki koy indi woon Moustapha la tudd biñ demee ba muy daanu ki ko daaneel Moustapha la tudd muy Kamal Atatürk boobu Moustapha la tuddoon moo xëy daaneel ko 1924 donte ne gars yi jéemoon nañ lu ne ci seen diggante ak sultan Abdul Hamid mais mënta sotti parfois sax nga gis ci ñooñu nga tuddee ay warkat ñu yëkkati ay tuuma teg ko ci sultan Abdul Hamid ne xad ne problème mu Palestine moo ko jaay te jaayu ko dafa musa lànk gars yi dañ ko musa imposé même jëlal ko ay doom yóbbu leen eh, Allemagne jàngal leen mu lànk ne du ko mos a def kon mel na ni eh, loolu yëpp luy fa na ci kanam dana gën a leer sans eh, ma del seet ci yow fi ma daanee loolu fi lay ñëw bi ñu bi ngay jeexal maa yow dama la waxoon ne dafa am nit ñu ñu wax ne nouvel ordre mondial ci lenn ci observateurs yi pour ñu xam dëgg-dëgg kañ lay départ ak kan moo koy jiite mooy maa baax de corona bu corona bi jeexee parce que wane gis nañ ne àddina fi ne moom dafa renversé wu xamuñ ko man dara ak ko télé képp ku jàppoon ne tey puissance nga daanu ko benn puissance rek moo fi nekk mooy yàlla parce que li xëy na cutt na jonn kenn mënu ci dara fi ne nag ñu ngi seet ñu ne gannaaw corona bi nag ci la ñu xam kan mooy jiital wala ordre ndax da nga d'accord ci loolu yow ndax daa ci d'accord wala duma la wax woy non mais li woo hmm. ba am moo di hmm. avant le corona hmm. ak après le corona yëf yi dootul demee na mu doon demee

parce que diine bo gis diine bu mu mais lenn rek ko le suis fexé ba doomu mais véritablement épanouir jot bonheur ci adina du bonheur total lool rek la wax ak yow dama ni la soixante dix indil ñaari événement yi euh, Jean-Paul de Folfé mais dama la wax la révolution islamique iranienne ni le mais ce pays là dafa ni non damay dellu ci samay pas que diine ak valeur yi nga xamni ne fi te mengok diine te valeur mais li ngeen di def ça veut dire quoi ça veut dire au moins si yow question bi nga ko posé te tonto ñu au moins gis nañu ay julit yo xamni ndax lañuy def non la wala du ndax d'accord ci d'accord mais au moins amna lo xamni gis mooy une volonté réelle et farouche de ne plus suivre l'Occident mooy mi nga tuddee yowut ak euh, xaw ma franc-maçon ainsi de suite parce que mu neex mu naqadi nag la démocratie occidentale la bii ñu jox ñu wax ko ñu bañ ko wax mais valeurs yi ko lal yëpp c'est les valeurs judéo-chrétiennes Nous, nañu loolu ñoom seen borom xam-xam yi ku ci jàngir xam nañ ko eh, Bernard Chanteau bu moo bind fàng la laïcité la laïcité la séparation des pouvoirs, ce n'est rien d'autre qu'une politisation et une juridisation de la Trinité Lui Trinité au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit n'y a pas de pouvoir royal, rek n'y a jox de gis royal, moi n'y a

xam ni Occident yoon wi muñu ñu duñu fa jëm fu baax te nit ñang koy contesté Occident ci bopam li nga wax fi ma wax la dara en 1912 le ministre français des affaires étrangères Émile Florent mo wax ni en 1912 la la wax que y a une tentative ben complot pour créer un nouvel ordre mondial dama lay wax ni du ci julli rek pour créer un nouvel ordre mondial à travers une société des nations et la création d'une cour permanente internationale de justice 1912 le ko 1916 amour. 14 18 pardon Cela dit, six ans après société des nations judd de ñu la première guerre mondiale cour permanente de justice Je kon ci parce que moi, me suis wax complot c'est pour lutter contre la chrétienté parce que moom gëm na chrétien muni y a ay ñoo xamni ay maçon ki non la tuddé en 1912 la la wax té limalay wax ko Émile Florent, ministre des affaires étrangères de la France la la wax mo jog bind ni amna ay lobby maçonnique ak ay euh, euh, société secrète yu taxaw pour lutter contre la chrétienté te fañuy jaar moy créer luñuy wax une société des nations ak cour permanent de justice muni pour lan pour imposer une justice globale ci àddina bi ak une religion globale donc nous, ca dans tax am est-ce que vous avez dit 1983 dama 1983 le conservateur William Jasper américain def na xayma pour l'Union ni Nations Unies bii organisation des Nations Unies Nous ñu tout simplement communistes ont dit, pour créer un gouvernement mondial basé sur le communisme Vous avez wax te dafa wax it ay lobby la yoy yooyu ba ñu tuumal des savants américains ni ñoy jox euh Union soviétique tan yoy ay information scientifique uniquement pour mu développer son complexe militaire et industriel ya ngi dégg li ma la wax dé mu teg ci ni seetlu na ni secrétaire général des Nations Unies yëpp yi ci ëpp c'est des communistes ou des socialistes xana kon xam nga fu nek ab nit ñaa ngay wax ay complot bok que y a un ordre bo xamni ni ak sa pas-pas nga tuddi ko comme complot problème bi monde, li ci am solo kii comploté nit la pas ça. mais man te là mais quand même la moindre des choses c'est de faire quoi c'est de faire face sinon nit boo un individu que rien ne soulève au-dessus de lui-même est un esclave maanaam doo amul force boo xam ne tey jii ñu euh, euh, je ne sais pas conquérir le Sénégal ou quoi que ce soit doo mu doo mënul joxe sa bakkan yow ak il faut que ça soit clair problème bi am nag ci àddina bi ñoom xam nañu ko mënul continuer règle ya ñu doon def lenn règle nouvel ordre mondial bi il faut que pour mu mën a am nit ñi dañuy toog maanaam réew yi fi ñu commencé organisation des nations unies il faut mieux démocratiser parce que ku ne du yoon du dëgg que cinq réew Chine Russie euh, al safula euh, France Angleterre États-Unis durant yooyu mais yow bëgg doxal àddina bi nu leen neexee doo bëggee def dara ñu ne la tey nga jàll donc ma ñëw dafa am lu may laaj dafa lu may laaj parce que su suma la déggee men na ni eh, leeral nga ne ñun faw ñu nangoo ne ay jullit lañ waaw buñ nangoo ne ay jullit lañ ne dañoo war a tënk suñu bopp ci ne dañoo war a dund diine ji nga ne loolu mooy li yëkkati révolution iranienne iraniens yi wane ne am nañ diine am nañ baax am nañ ay maam am nañ ay culture yoo xam ne dafa opposé li ngeen ñu bëgg a teg kon dañ koy bañ pour sëkkandiku ca loola Eh, nga ne loolu moo indi révolution iranienne mu mel ni nouvelle bi wax nga ne depuis 1912 eh, Émile Flourens waxoon na lu ñu mel. waaw wane ne lu war a ñëw la. te moom xamoon nañ ko ci jéng gum jéngoon maanaam gëm gum gëmu diine chrétianisme. voilà. nga ne 1983 William waxoon na lu ñu mel. ci William Jasper waaw. mu mel ni suñ la déggee eh, affaire bi yàgg na. di traîner di traîner mais léegi su ma la laajoon nu mu manifesté waa ay malaameem nu ñu ko mën a xamee fii na loo may wax.

pour sa gestion de la pandémie du coronavirus. le Sénégal c'est un classement donc dans ces pays développé je xam nga du si ci c'est ça. c'est ça mais tu dis, comment se fait-il qu'un pays comme le Sénégal dem ba citer exemple dans la lutte contre le coronavirus. ça veut dire quoi ça veut dire ni nous manifester nous mu ñu ko

Ebola amul won ko fi amone Ebola xawma ma Guinéen bi ñëwoon fii. traité wuñu ko fi wéru fi. dégg nga ku dé ci Ebola. américain ya déwuñ ci Ebola bañu démé ay kile ça veut dire quoi ça veut dire que dama ni la nit ki tank que gëmul boppam du mëna dem fenn parce que nak soyons sérieux mais c'est tout à fait naturel man ak yow du bokké adina tuba bi attention li ñuy def ni man contre d'accord c'est vrai mais doo bokkoon ci ñoom légitimement ku nekk day jéem a def noo sàmmi sa réew noo fexee sa réew jëm kanam nooy fexe pour jiitu ci àdd àddina mais c'est ce qui se passe dans les classes non composition yi pour lan la mais écoute damay am sama fayda bopp parce que nag les Iraniens écoute soyons sérieux amuñu benn kon kon euh, euh, corona bi. waaw joxañ nga ci benn ci la ci la ci li ñu wanee ne ordre mondial amna dama ami wane wane nga euh li ci gëna nek nekk comme lu ñu mën a làmb ko comme résultat. waaw Sénégal ki ñu ne mo jël 2 deuxième ci ñu ko seeree. ci di voilà. tey maa ngi te tubaab yi attention. Hmm. attention tubaab bi dañu ni woon. Hmm. corona bi day def ay millions de morts en Afrique. pour africains way ñi ñun ñëpp ñu koy dégg. Hmm. looloo ñu gën tiital tax na. mais l'expérience a démontré quoi la réalité que lañu doon wax amul communication fatena naa euh, suñu mbokk mi Amadou Mokhtar mbaw hmm. ci lutte euh, contre ancien système B hmm. amna ci am solo motax xam nga nekkoon na fi secrétaire général UNESCO hmm. mais lu tax ñu jëlee ko fa keroog ba mu né nouvel ordre international euh, de l'information te la ko fa tubaab yi jël parce que xam na ni information yi li ñu koy joxee tax day dem bay nëxal xelu xelu nit ñi la preuve exemple la ngi ni OMS prévoit des millions de morts en Afrique avec le corona alors que amul duñu ko du fekkoon ba tey information euh, communication bi développé benn bi dañuy yaakaar ni lu neex wax ko. jërëjëf Jean-Louis euh, euh, kon mel na ni li nga wax leer na trop bu ñu la déggee gannaaw boo ñu joxee ni nga développé mbir mi yëpp dalee ko ci révolution iranienne yi ba agsi ci 1983 ci William andil ñi it malaame yi li nga xam ne lu ñuy làmb daj ko la ci luñ jàpp ne. Euh, luy manifesté wu ci nouvel ordre mondial muy corona bi Sénégal ñu wax ne moo jël deuxième ci monde bi loolu mel na ni kon mbir la ci loo xam ne luy manifesté wu lu ñu mën ko làmb daj ko tey ci yow lay del siar euh, li ñu tuddee nouvel ordre mondial bu ma laajoon ay malaamiyaam loo xam ne ni muy manifesté wu lu mën a làmb daj ko yan lan nga may indi léew jërëjëf sëñ Cheikh Tidiane maa ngi santaat euh, Jean Louis effectivement ñoo bokk lu ñuy wax xam nga malaamix yi moom yàgg naa manifester luy wane ni lii mooy nouvel ordre mondial puisque depuis maa ngi la ko doon wax bi ñu créé 43 euh, bi ñu fes créé li ñuy wax alxuwa alxafiya te la ko taxoon a jóg moo doonoon diine ju dëgg ju yàlla wàcce woon ci Isa euh, ñuy dem ba date bii ma la waxoon ni la dan koo tegoon di ci wàññi pour bu ñu demee ci troisième millénaire bi Euh, ñu war a bàyyee jaamu yàlla te date ay yàlla rek moo ci nekk ay ma fi ne mars euh, bi nga xamante ni mooy euh, tàmbalikaayu datu franc-maçon yi yàllay guerre lay tekki yàllay guerre ma maaya ah hmm. turu yàlla la ah jeune maanaam turu yooyu yëpp pour wan nañ la date la buñ woon boo xamante ni dañ cee dañ ci doon dox pour tegal seen agenda kii boobu nouvel ordre mondial boobu hmm. léegi nag ni muy manifesté woo hmm. Euh, boo ko dalee ci révolution américaine hmm, bi nga xamante ni tey moom rek moo moo amee li ñuy wax euh, hégémonie mondial euh, nga dalee ko ci révolution française bi nga xamante ni ñoom ñii may wax ñoo nekkoon ci ginnaaw ba ci congrès bi njëkk a def ci Bâle pour effectivement li Jean-Louis wax noonu la demee mooy ñoom programmé woon na naka la la ñuy tegee benn gouvernance mondiale benn xukuma alamiya mooy société des nations boobu muy wax mais boobu mënuñu ko woon a teg te tadmirul xilaafa islamiya moo tax première guerre mondiale objectif bi ñu ci wiise woon mooy tas xilaafa islamiya xoolal 14 18 19 lan folle Abdul Hamid Assani 1919 lan créé usbatul umam muy société des nation boobu muy wax nga xam ni maanaam comme na Unies bi mu remplacé tey ni mu doon doxee rek daanaka lay doxe mais dañ koo gën a tëggaat Euh, dana gën a leer bu ñu yegsee ci malaamix yi ba ci Nations Unies euh, mais kii yi beneen malaamix yi li koy euh, wundu li wala li koy wane boo demee ci protocole yi ñu tegoon xoola tey ni àdduna bi doxe ci wàllu politique protocole bu njëkk bi dañoo bindoon ni faw ñu jëfandikoo doole ci kaw xurabaay xam nga ñu tuddee xurabaay pour ñoom ku dul yahud hmm. parce que dañoo bind ci seen tal tawraat ni yalla ñom yalla ji gëm mo leen dagana la dereeti kurub yahuud ak alali kurub yahuud lool sa fa tout dire légui ñu ni dañu wara euh jet nit ñi tagat leen ci jëfëndiko doole nax alal ger yoyep muni mu ni war nañ ba pare di leen wo ci ay di leen tudd ay kalimaat maasula ay baar yu ñu ko suuy lem ci démocratie liberté égalité loolu la ni naxé nit ñi mais ay baar la yo xamanteni gëmuñu ko pour nax ci nit ñi la ñu wax lu garaaw pour wan lañu la xool àdduna bi ñu ni inna siyaasa la tattafiqu ma al axlaaqi fi shay ñu ni politique amul lenn lu ko lëkkaleeg ay jikko ak i diine loolu mooy li genre yu doon wax bin doxee pour bëgg ñoo gëmloo euh, ak diinu lillah wala watan lil jamia mooy yàlla moom diine réew mi moom ñoo ko moom indi leen ñuy wax faslu diin ay daw la mooy feppi loxo yàlla ci doxalin bi léegi xoolal réew yi adduna bi yépp est-ce que doxewul noonu politique amul valeur amul diine amul mbañu mbuus loo wax bañ na ko ba Machiavel kenn ci ñoom la neewoon na euh, da nga war a mel ni kàkkatar bu bu laajee nga weex nga weex bu laajee nga ñuul nga ñuul ma nit noonu lay doxee loolu ci lu koy euh, jëmmal la beneen bi neewoon na dëgg xam nga dëgg ci yoon mooy doole mais ñoom nee nañ doole mooy dëgg ci ñoom doole mooy dëgg waaw ñoom nee doole mooy dëgg te nee nan doole du paase nee na doo euh, teguwul ci yenn critère dëgg amul benn critère buñ koy teg neen daal doole mooy jox ma li ma jox ma li nga yor pour ma woon la ni la maa la doole maam ñoom fexe nan ba not bi waaye wan leen ni leen ñoo la ëpp doole ñoom loolu ci beneen protocole bu garaaw pour wan la nga xool ni muy doxalee kii bi maam ni mu ni mu jëm jëmmoo ci deuxième protocole bi que euh, puisque 24 la loolu rek ci laay jeexale ci protocole bi ñu ni faaw ñu taxawal benn xukuma alamiya boo xamante nii mboolem luy bàngaas ci àdduna bi ci wàllu économie wàllu santé ah wàllu militaire xoolal puisque na SDN Société Nations bi ñu ko taxawalee ba Nations Unies bi mu jël tey jëlal organisation mondiale de la santé moom la topp Nations Unies jëlal organisation mondiale du commerce ñoom la topp jëlal banque mondiale nga xam ne mbooleem luy alal ci àdduna bi même baykat bi nekk fongali mi sax di bay gerte ñoom ñoo ko décidé prix bi jëlal kuréel gi yor wàllu mbay ci àdduna jëlal kuréel gi yor wàllu jàng ci àdduna UNESCO maanaam banga mboolem li gouvernance mondiale la tey bu doon suñu réew yi danaan ministre de l'économie et des finances ministre de la culture nangam mooy banque mondiale fonds monétaire international organisation mondiale du commerce organisation mondiale de la santé ba ci CPI bi mu wax mooy cour pénal international maanaam loolu mooy gouvernance mondiale boo xamante ni ñoom ñi ko ŋànk mooy ñi waroon wax ci tàmbali bi nga xam ne sax Iblis mën naa ni mu leen tane ndax nit dana jàngal nit mu raw ko parce que Iblis li muy bon bon wax gëm na ni yàlla ko bind xalaxta ni min naarin la wax ah, Iblis li muy bon bon nangu na ni euh, gëm na dee gëm na dekk mais ñoom dem nañ ba romb Iblis ci bon googu leneen li muy manifesté woo hmm. mooy bi ñu bi ñu daanee xilaafa islaam taxawal seen SDN boobu état boobu ñu waxoon ne dañ koy créer te li ma lay wax avant première guerre mondiale la woon 45 ñu ñu ñu tas SDN ndax deuxième guerre mondiale te deuxième guerre mondiale boobu bi ñu koy taxawal bokk na ci ni ko taale indi ci pouvoir bi ku ne wax Hitler Hitler Hitler Bush maamu George Bush la ñoom ñu indi Hitler ci pouvoir bi pour mu rayal leen que waxoon nañ ko ci baal ne woon nañ faaw ñu rey ay quelques juifs yoo xamante ni day nekk rek satu diaaya e, day nekk source de propagande pour ñu am état Hitler yow ab jullit la ci alam islami bi la dëkk pourquoi Hitler rey ay millions de ñu dikk ba ci réewi jullit ñi daggal leen fa état lu tee ñu daggal leen ko Allemagne wala Europe te lu ko jiitu amoon na wax de Belfort di wax maanaam tooñu Hitler la ñuy sanctionné ñu waaw Hitler Belfort di woon na leen suuf ñoom ñëpp ci kii bi la muy wax de man laa rek ilaa man laay feet Belfort miy li muy diggee moomu ko ñi ko dig moomuñu ko muy muy la création d'Israël maanaam mal benn melo la bu fés ci nouvel ordre mondial ndax xamoon na ni mënuñoo contrôler al alam islam yi feeg jëluñu benn réew samp ko ci seen biir mu leen di duma muy Israël beneen bi euh, ci li koy jëmmal xam nga programme woon nan mooy li kii di wax ci communisme ni bu ndaanee xilaafa islamiya faaw nit ñi ñu indi leen badil benn gëm-gëm ñu indi communisme gëm-gëm la lin lay njëkk wax mooy laa ilaaha wal xayaatu madda mooy yàlla amut fii Sénégal xam nga yàgg naa am ay communiste <laughs> wala déet ñu ne dañu tabax benn xot bu benn pôle boo xam ne day yilif génn wàllu àdduna parce que boo fàtte ni am na ngóor gu fa nekkoon goo ci wéy wéyutoon ci seen waaw ñoom jaam ko te iblis yi ñu daane ko jël ay ñoom li neen sterline ñu folli leen euh, foofu ma maa ngi ñëw hmm. bi ñu tabaxalee benn pôle mu yilif génn wàllu àdduna ñu dem ba cinq ci la ñu taxawalaat beneen pôle bi muy bi jiite ci ne bi nekk ci boppu capitalisme muy États-Unis ci firnde yi ñu dem ba guerre froide jeex ñu daane benn bi yooyu yëpp ñoo ko def ndax Margaret Thatcher daf ni daane nan al udwul abadi noon bi ñoo ko créé ñu ne daane nan al udwul abadi mu dese ñu al udwul azali udwul azali bi ñoo mooy lislaam moo tax guerre furaat bi bi mu jàllee benn xut bu rek moo fi nekk muy États-Unis amee première usine mu mondial di doxal nouvel ordre boobu kon likoy koy euh bëri na que ma maa ngi dellu mais la mel na ni euh, nga fi révolution français andil révolution américain yi la fi mu'tamaru euh, andil euh, première guerre mondiale woné né sabab yi bokkon na ci pour khilafa le euh woné né dem nañ ba depo nga ak saint à politique mhm. maanaam nga wane ne léegi ñoom jàpp nañ ne nit ku bëgg a def politique bu normal du mën a yor dikko ju diine. neen doo yàgg ci nguur bi sax. waaw parce que mooy wax loolu dëgg def wax lu duwul dëgg am na ñu bëri ñoo xam ne loolu d'accord nañ ceeg ñoom bon indil euh, nga ñi ci yu bëree bëree bëree bëri euh, ba wane ne kon suñ suñ la déggee ci di nga deexee nii li muy manifesté wu yàgg na. Mm-hmm. di manifesté wu di manifesté wu ba jamono bi ñu toll. mais laata euh dama bëggoon sama suñu réalisateur mu dugaloon ñu euh, euh vidéo bu ndaw ñu déglu Sarkozy amna na lu ci waxoon. waaw après su ko défé mo lancé à alerte ñu téléphone yi pour gars yi ñu dañ ci am ñoo xam koy laaj am lu muy laaj bu fekkee euh, vidéo bi yamb na ñu bokk ko sétane door del dellusiwaat ci jotaay bi. Peut-être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. kon euh, mel na ni euh, bokk nañ dégg ma wax mën mën nañu dugalal téléphone yi après su ko defee euh, ñu continuer jotaay bi kon mel na ni suñ la déggee affaire bi manifestation bi sori na yàgg na boo ko xëccee ba miis ci jamono bii ñu toll tey di wax man ak yow comme ni Saint-Louis bi defoon léegi nga xam ne xëcc na ko ba ñu ne Sénégal jox nañ ko ne moo jël deuxième position ci ñi ñu seeree ko Covid 19 bi. yow loo ñu ciy jox lu ñu gën a jege la. waaw bu ma la jox lu gën a jege. Hmm. mooy kii Sarkozy bi nga dugal léegi. Euh, doom ji. Ah. Morifine. Charlie hmm. Hebdo la woon liggéeyee. waaw doomu Sarkozy dafa bëggoon a takk euh, benn juif ñu ne ko dangay ngay nga convertir du ci juif mu mu dugg ci. Morifine ci Charlie Hebdo lay liggéeyee mu caricaturé ko. Morifine moo doomi si déedéet Morifine ci Charlie Hebdo. ah Charlie Hebdo dafa caricaturé doomu Sarkozy ne xaalis ko ci dugal. Hmm. ñoom kenn du leen laal problème la ñoo yil fa àdduna rédaction bi ne ko da ngay baalu wala ñu dàq la mu lànk ñu dàq ko ñu dem ba jëmmi jamono Charlie Hebdo caricaturé yonente bi waat nañ ko bu yàggut mu leen yéen di gën a naa feq yéen Mohammed milliard ak lu topp ñoo ko gëm ngeen ni am ngeen droit caricaturé ko ci turu euh, liberté de la presse yu ma la mënta wax mm-hmm. man pourquoi uma caricaturé doomu kii doomu kii te moom mii ci nouvel ordre mondial bi la bokk mm-hmm. beneen bi mooy mm-hmm. adduna bi adduna bi ni muy doxee ñëpp surtout boo xoolee tournant bi muy jël rawatina ci monde islamique bi boo demee fii yonente bi tëddoon nga xam ne fa la ak mbaax jóge woon di tas ci àdduna bi tey fa la ak mbon di soqi ko ñu mën a organiser ay concert jël boo yoo xam ne ñoo ko formé ci seen euh, dëkk yi ci ci nouvelle ordre mondial bi la muy tëgg ay concert mën a indi koo xamante ni Nicki Minaj bëggoon koo indi ci période bu aj bi xam nga lu tax mu làng daf ne leen yéen joxoo góor jigéen ñi seen àq man may ragal ñu dem ba

beneen bi mooy corona bii ngay wax parce que seen Cheikh Tidiane hmm. même euh, Nations Unies yooyu ngay wax noonu ay ay quelques personnes ay famille ñoo nekkaat ci ginnaaw ndax ñoom yàgg nañoo ñoom seen yoon néew ci guerre yi taal nit ñi di ci dee ak feebar yi ñoom bénéfice bénéfice bi ñu ciy tiré groupe pharmaceutique mondial yi ñoo ko moom wala groupe armement mondial yi boolee réew ñuy guerre ñuy jaay ci yaramu jaay ci yaramu ñoom bénéfice bi parce que ñom waxon nañ ko neewoon nan yàlla mu leen daganalal dereeti kurul yahud ak alali kurul yahud banen bi moy créer ay fièvre parce que amna rapport bok fam génne won neewoon na États-Unis depuis biñ ko créer ba 2003 ak li ñu tuddee wal nourani yi mooy yam ci nii ay ko iblis ñoko samp moy États-Unis ak Arabie Saoudite ak sax yenn réew jullit yi ray nan 1 milliard 300 personnes bi ci fa mu baasira waxee mu baasira ci ay guerre ay rebellion yu ni créer maanaam képp ku wéew ci seen waaw xam nga Sarkozy wax na sànq loolu su nee na kenn mënu ci opposé wu tey fi mu ne réew bu bu doon dof dof bëgg ci opposé wu mën na laa créer rébellion mën na laa créer xiif moo tax foofu laay nawee euh, sawra islamique boobu nga xamante ni ayatullah Khomeini daf ko def puisque gis nga Iran seen noonu ak États-Unis bu nu waroon comme euh, yenn réew jullit yi suba ñu ñu juboo suba ñu juboo mais bëgguñu ko échapper ci nouvel ordre mondial bi di doxal benen ordre rawatina nak ordre boobu ci ni day jëm ci sunu borom. ta xat xat xat ma daal rek ni faax dama xam lu ma la bëgg laaj. parce que parce ndax japp nga ni Iran situation bu critique bi ñu dund jamono euh foogoo ne dana delu gannaaw fekk ma gaay dedet iran mom euh bu don delu ginaaw ba tay xam nga ñoo dañi saabu bu mak tayit wax deug yalla am rew ñu war nañ ci jël misal ñun alam islami bi. lu demee ni Turquie ak Iran puisque Turquie fa la Allemagne yi gënoon a samp ay baasam te gis nga tey ni fa l'islam commencé day gañewaat Iran ci seen sabaat seen seen dëgër nga xam ni ci wàllu xam-xam bi nga xam ne ci la julli ñi yële fi nu àdduna parce que dafa am loo xamante ni am na ko liggéey mii ministère affaires étrangères xoom ni daf ne woon ñaar mooy tax a yilif àdduna mooy alal ak xam-xam mu ne bu dee xam-xam moom mu rek honnête ni jullit ñi ñoom ñoo jàngal Occident xam nga musique sax jullit ñi ñoo ko jàngal tubaab bi musique jullit ñi bi ñu nekk ci Andalus di defar ay palais booba Londres ñoo gënoon a développé ci dëkki tubaab yi te ci ay néegi baraag lañ dëkkoon kon xam-xam jullit ñi ñàkkuñu ko ban bi mooy alal mais alalu àdduna bépp ci réew jullit la nekk demal Iran la fa nekk ci gaz demal Qatar demal Kuwait demal Arabie Saoudite kon ñun lan mooy télé yu at mu ne waaye nan fexe ba buñ ko tal loolu ci li koy gën a jëmmal mooy boole bi ñuy boole ñuy geer nee na nag saa ban tal ko mooy suñu début de la fin. jërëjëf euh, xat fakk kon mel na ni bu ma la déggee wanee nga ne euh, Iran euh, taxaw na taxawaay boo xam ne opposé na États-Unis mhm. mais su fekkoon ne nangu na dellu gannaaw wor comme yeneen pays mu am nekk ci jàmm. wane nga ne jàpp nga ne du dellu gannaaw mukk mhm. ndax dafa am lu mu gëm. ñaareel ba mel na ne am na doomu ndeyam bu mu dendet muy tirki mhm. ñoo bokk gis-gisin ci wàllu ne dañoo war a jëmmal état islamique. donte ne.

ndax jàpp nga ne situation bu jafe bii mu nekk ñu tëj ko ci côté bu ne di ko fitnaal rey général am barki démb eh, dégg nga mënta jaay pétrole ndax jàppoon dana dellu gannaaw. ndax dana dellu gannaaw ndax ah. loolu. ah <laughs> c'est-à-dire 1979 ba léegi. Hmm. il faut que nit ñi xam loolu. 1979 hmm. ba léegi. l'Iran est sous embargo. 79 hmm. ba léegi. l'Iran est sous embargo tout yooyu changé. ay durcissement sanction fii gannaaw ñu wax mais 79 ba léegi l'Iran est sous embargo te embargo bi tubaab yee ko def te ñi leen di dimbali ku ne xam naa Arabie Saoudite en tête xam nga mbokk bi dafa am dafa am loo xam ni il faut ñu koy wax du ñuy waxtaan yenn yi quoi parce que nouvel ordre mondial petit patat dama da nga wax dara nga ni ñoom dañu gëm euh, doole du yaa ko wax euh, kattan force la ñuy yëli fi àddina du yaa ko wax Ben, ma déglu ci Sarkozy discours bi li ay mais dafa am lu am solo yo ko ci c'est ensemble waxul li ñun rek de dafa ni ensemble ñun ñëpp ñoo koy défi définir déglu discours bu baax dafa ni ensemble la wax plusieurs fois Il ko répéter ma di kon y a une certaine responsabilité individuelle parce que tout le nan oui tubaab bi dafa bëgg lii dafa def lii day l'islam day lii mais ñun suñu responsabilité individuelle lan la parce que nous n'avons jamais considéré peut-être bi fi sang nous n'avons jamais considéré l'islam comme pouvant être une réflexion sur la condition humaine yaa wax doole aaya bi Il y a jàng alxuraan lan la yàlla wax en matière d'armement du dafa ni yéen jullit yi wut leen lépp lu ngeen mën ci kàttan lu ngeen mën waxul pour attaquer lu mu wax pour titre, c'est-à-dire dissuader l'ennemi Moi, les forces de dissuasion nga bañ ko def vas bi def ko moi j'excuse maman, hein, mère, parce que a amul woon doole est-ce que c'est clair mais tey je ma ex pas la excuser du excuser son bop. parce que nous avons une responsabilité pour xam ne ñoo assumer nag où lan ou dañuy bëgg doon lee ou ñu doon li ñu doon mooy lan dellu ci suñ il ne suffit pas de faire ak le problème c'est pas non d'ailleurs nos pays là de temps en temps mais la France n'est plus euh, le premier partenaire commercial du Sénégal hein Chine ne place hmm. ça veut dire quoi au moins nous nous eh mondial ensemble nous disons que nous eh

Jibril Jibril bu baax ah Jibril bismillah ibn Jibril ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di len ziar ah kay ñu ngi la koy delo di rafetlu émission bi bu baax a baax mhm. di sante suñ mbokk yi ngeen togal fofu sama xarit bobu xat bakka ñu mhm. ngi rafetlu waxtaan wi ak sëñ Louise moomu mhm. di wax ni tem bi ngeen jël ni lu am solo la te euh, dafa am dafa nek tem bo xamni tem thème d' actualité la daal ndax rawati na bis bi mu tombel muy 11 septembre comme li ngeen ko waxee rek euh, nouvel ordre mondial moom dafa nekk euh, loo xam ni euh, képp koo xamante ni si yaa ngi jàngat àdduna bi ni muy doxee ak géographie bi di nga di nga comprendre loolu man nag li ma ci li ci gën a ñor rek ci waxtaan bi hmm. mooy malaamix yi nga xam ni maanaam nan lay manifesté woo ci jamono yii hmm. Oustaz Fat Pakase da ci commencé woon a junj développé lu am solo hmm. ni muy manifesté woo nag muy yi mu doon junj noonu noonu nga xam ne noonu la ko yahudi tëggee woon ca jamono yu njëkk yi ba fii may wax ak yow nii ndax bokk na ca lañ bindoon mooy nee nañ dañuy fexe ba lépp luy xeetu pas-pas hmm. dañ koy supprimer ci àdduna bi nga xam ne moom nit ñi moom duutuñ am ay pas-pas ci lislaam te loolu gis nañ ko ci àdduna bi mu feeñ ci fànn hmm. fexe nañ ba tey nii lépp loo xam ne ay xeeti fitna la dañ koy tasaare ci àdduna bi fexe ba tasaare ba tey ay xeeti organisation ak yu may yu mel noonu yoo xam ne ci lañu jaar pour mën a diviser diviser monde hmm. loo xam ne lu jëm ci wàllu guerre la ak loo xamante ni si maanaam day tax nit ñi nekk ci ñàkk nekk ci ñàkk manque yi valeur mhm. ci seen protocole yu la bokk fexe nañ ba tey nit ñi maanaam dañuy gëm rek li ñuy tuddee matière waaye duñ gëm diine ak lépp loo xamante ni sii ci matière lay jëm te loolu gis nañ ko ci àdduna bi gis nañ ni maanaam nit ñi léegi maanaam matière rek lañ lañ bàyyi xel bàyyiwuñ xel yàlla mhm. lépp luy xeet ak mbon dañ koy fexe ba tasaare ko mhm. ak fexe ba nit ñi di wuute fexe ba war nit ñi ba tey ci lépp loo xam ne xeex xeet organisation la yoo xamante ni si li muy li muy woote ci kaw bokkut li mu gëm ci biir mm-hmm. loo xam lu mel ne ay maçonniya ak yu mel noonu mm-hmm. ak lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu fànn la ak yu mel noonu yépp dañ koy tasaare ci àdduna bi fexe ba tàggat média yi muy dox ci seen i waaw ak yu mel noonu fexe ba li nga xam ni mooy ñuy tuddee ay théorie yoo xamante ni si ay théorie yoo xam ne ñoom seen bopp ñoo koy ñoo koy théoriser waaye bokkut ak euh, l'islam lu mel ni ay ilmaniya ak falsafa mulhida yi nga xam ne ñoom am nañ ko lu mel ni lu mel ni ay darwiniya froidiya machiavéliya bourgeoisiya yooyu yëpp nga xam ne seeni falsafa ñoo xam ne ñoo koy doxal ci àdduna bi kon man li ma bëgg wax foofu rek maanaam mooy doy na sëkk ñu xam li ñuy tuddee nouvel ordre mondial après 11 septembre 11 septembre bi mu jàllee li fi dund ci ay xilaafaat ak i maanaam jaay doole. ah jërëjëf euh, mbokk Jibril mi ngi doon développé lu am solo. Ah, moo am ci waaw bisimilah. dama doon wax problème responsabilité individuelle. Mhm. nee naa amul woon doole. bi daf ko mais man actuellement dañu je suis indépendant non. fi toll comprendre naa addina bi nu ni continuer ci nga ne lii ko exprès. waaw laay <laughs> def exprès parce que costume nga daa costume laa daa hmm. nga ni ma nouvel ordre maam dana ma dana ci eh, ne tuddu seutam la deug la wul deug te ma ngi sol yi sama je jamo jamono pas ak mom ça veut dire quoi ça veut dire lenn mo fi meuna am dañu may ak sama culture nationale ak sama je gëm duma ma nak avec ce qui est moderne way si limuy wax je ay machiavelisme ak non non non xam-xam xam-xam la moi je totalement contre ñuy wax way nañu jàngale diine péditi patata rek non diine bi dama koy jàngale mais boole ko xam-xam bu jóge feneen parce que sama ennemi pour ma mën ko xeex il faut ma xam mooy kan ak ma xam lu mu bëgg ak fu mu koy jaarale foofu foofu loolu rekk ñu mën jóge tubaab bi daal li xew nouvel ordre mondial lan rek la mën a am dañuy toogandoo ci taabal ci kon fi ne du benn gouvernement moo koy diriger ensemble la

on ne se pose même pas la question comment se fait-il que nit njaay wax waxam ñu tok ba yag rek mus mu soppali ko hmm. te mu melna musul wax lee est-ce que dégg li ma la wax hmm. ça veut dire ceux qui exercent le pouvoir sont dans l'antichambre do len gis fofu adina fu nek la yalla ken gisuko ay nit la yónni ñu gëm li ñoo mo len yónni hmm. rek nak mais le pouvoir ñukoy diriger deug bite doo leen teg bët ñu ngi ci gannaaw àddina doxe noonu il faut ñu di tëb lan mooy différence su pays président yi lan mooy seen différence tey nga am conseil yi gannaaw suba keneen am mais am na question bu ma la laajoon ci de mooy ban maanaam Iran yi waaw situation bi ñu toll actuelle situation actuelle bi ñu dund waaw xam ne dañ noo tëj seen lépp waaw rey seen général bi ndax daañ dellu gannaaw waaw <laughs> waaye bi yow xam nga sama réponse sax doo damay laaj la laajal ma sama bopp. ñi seetaan laay laajal dama koy wax àddina yëpp it ñu dégg ko. dama koy wax àddina yëpp. ñi seetaan laay laajal. ma ni moom moom laa wax moo tax àddina yëpp laa ko wax. dama ni jëkk ni la ba léegi. iraniens yi ils sont sous embargo tur yi mooy chan changé du tee ñu wax sanction fii gannaaw suba fee leen dara pas-pas ba ñu àndal nag dafa nekk ci ñoom maanaam dañu soxat ma wax la benn exemple hmm. révolution française 1789 le non hmm. <laughs> muy 18e siècle la hmm. au 15e siècle donc en 1400 yaa ngi dégg li ma la les Iraniens ils temps yooyu laa lay wax ñoo def une révolution xam nga lu une wax buur bi dañu ni buur da ngay bind ci constitution impériale bi yaa ngi dégg li défendre le schisme c'est défendre l'Iran défendre l'Iran c'est défendre le schisme xanaa dégg nga wax ba teg ci ni l'Iran est la patrie de al Bayt alayhi salaam mën nga ci wax rek ci 15e siècle en 1400 maanaam la ñu wax mooy Iran ku ko da nga mel na ku attaqué chia mooy diine l'islam xam nga te bu jóge ci àllin boobu wala àllin sànc ko mu leer attaqué chia dafa mel na nga attaqué Iran teg ci ni ko teg ko ci ni Iran mooy këru waa kër yenent bi te quinzième siècle laa la wax mille quatre cent la ñu def loolu ci bi ñu ñëwee fii ba ci révolution islamique iranienne bi dañu ko ci defaat mieux même chat bi ak lu ñu ko contre contre bi révolution bi am ndeysaan xam nga lu mu ba xamee ne ci suuf la jëm. Hmm. xam nga lu mu wax peuple bi. eh waay bu leen yàq réew mi nga xam ni c'est la seule nation chiite au monde waay. ku wax la Jadiran. waaye bu leen yàq réew nga xam ni c'est la seule nation chiite au monde waay xanaa boobu xam nga ni kon waa nga xam ni ñoom ci seen bopp dañu gëm chia pas-pas ni dëgg gi mooy fii te it xam nga minorité. Hmm. foo ko fekk. day tax xoolal yahud yi ñaata lañ ci àddina bi do leen di compter 6 millions. mais yahud bokku ñu Iran yi position non dama la comprendre non bokkuñu ah, politique ah, non dama lay wax sentiment bi animé minorité. wa minorité yahud da ngay xam ne dafa am ñu ne ci seen gannaaw. di leen japp waaw je sais mais quand même juif yi minorité la. c'est-à-dire minorité. Hmm. là, la bëgg wax toujours day am un sentiment de fierté bu koy animé surtout du xamé ni moom moom moo am deug dama ni sentiment d'appartenance au au schisme kooku lu jóg ca iranien bi ak lu mu mënti mel daf ko d'accord jërëjëf preuve non non ah. bi nga xam ni moom la ñu joxoon prix Nobel xam nga ñoom tubaab yi noonu la ñuy def hmm. pour jéema wut ay nit ñoo nekk ci biir xam nga avocat iranien la dañu ko jox prix Nobel de la paix Shirin Ebadi waaw ba ñu ñëwee waaye si laaj ko ni ko waaw États-Unis ak yi ñuy wax dañuy attaqué Iran déglu de tontom laa lay wax pour nga xam iranien yi hmm. dafa ni bes bu bal také jóge fé man ca foro ba lay jël dem jël sama fétal et pourtant elle n'est pas moom lañ jox prix Nobel mom lañ jox prix Nobel loolu la topp tontu journaliste suédois suédois bako poser question bi dégg nga wax bi de c'est que l'Iran dafa am nit lo xamni dañ koy wax deug neex yalla yalla dafa am lu mu def ci ñom c'est un pays bo xamni qui n'a jamais été dominé jërëjëf euh, Saint-Louis jërëjëf euh, kon ba mel na ni bu la déggee jàpp naa ne Iran fi mu nekk du fi sa dellu gannaaw incha allah mel na ni xeex bi muy xeex bu mu mënee la fi mu jëmit xam na ko yoon yu mu jaar ñeme na ko fekkee dégg naa la tey xat euh, fakk ma ñëw ci question bi ma laajoon ci gouvernement ndax dafa am gouvernement mondial secret boo xam mooy diriger lii nga xam ne mooy dox ñu di ko tuddee nouvelle ordre mondial effectivement noonu la demee mooy am na gouvernement boobu te nii mooy doxal nouvelle ordre mondial hmm. nekk ci kaw mooy États-Unis mais ci biir loolu am na ñu nekkaat ci suuf nga xamante ni maanaam ñoom ñooy ñooy ñooy kilifa kilifa yooyu. Hmm. maanaam kilifa yi yilif euh, buur ak jiite àdduna yi amaan na ay kilifa ci suuf gis nga dafa am ñoo xamante ni euh, dañoo dox yàgg dox pour imposer benn gouvernance mondiale boo xamante ni day amee benn jay faale yi mooy armée bi Nations Unies am. waaye benn jàngin am benn benn diine te diine boobu maa ngi la koy waxaat li ma waxoon ci tàmbali bi diine boobu ndax ñoom xam nañ ni nouvel ordre mondial bi mënta mënta ñàkk ñu tudd ci baatu rabb yàlla comme que mun ñàkk ñu tudd ko ci nag ñu wut benn yàlla boo xamante si nii du du du yàlla yi dëgg ji parce que dama la jox benn misaal Donald Trump bi mu faloo waat gi dama koy seetaan dama ko enregistré muy tudd rabb rabb rek mais leer na ma rab bi muy tudd du rabbu Moussa ak Isa ak Muhammad mais lu Lucifer lay tudd pour won la la ñoom am na lu mu gëm foofu laay egsee ci Jean-Louis li mu wax hmm. mooy comme que ñoom euh, dañoo mën a sukkandiku ci Iblis pour doxal seen ordre te yàlla joxoon nañu garantie <coughs> yàlla waxoon nañu xisbullah humul muflixuun humul xaalibuun wax nañu xisbu saytaan humul xaasiruun bu saytaan bi nga xam ne ñoo taxaw nag pour instaurer benn ordre boo xamante ni maanaam benn doxin lay am muy bëgg-bëggu Iblis te ñun yàlla jox ñu garantie ñu am alquran boo xamante ni euh, réglé na bépp lépp lu nekk ci àdduna bi moo xam ci wàllu jàng wala économie wàllu social wala politique ñu am téere bu mel noonu am royuwaay boo xamante ni am na kenn ko ci ñoom ko ko waxoon nee na li ma gën a ragal. mais li mu gën a ragal ci Occident mooy Mohammed mu bees feeñ parce que jullit ñi xam nañ ni maanaam bu demee ba jullit ñi yeewu ci ndax gi leen daan di leen rayalante dem ba mën a jël Arabie Saoudite ni ko Israël du sa première noon mais Iran Iran la dem ba mën a jël ay réewu jullit di leen rayalante muy xatlul arab bil arab wal muslimin bil muslimin hmm. loolu bu ci jullit ñi yeewoo xam ne am nañ téere boo xamante ni mooy suuri mooy maanaam moom li muy jàngale doo ay nax contrairement ak li li kii kon dama bëgg a wax ni am na nguur goo xamante ni. moo ne ci ma jël ki ci yoon wi te ñëw allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw euh, DTV. waaw mbokk mi kan la. Modou Fall Touba. Modou yow la ñuy déglu. Eh, maa ngi ziare waa DTV yëpp di la ziar. ah kay Fall. di ziar ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi. indi ngeen tam boo xam ne am na solo trop di ziar sama mbokk moomu xat fàkk. ak sëñ boobu mu àndal ci plateau bi parce que yéen a ngi révélé lu am am solo. ndax nouvel ordre mondial. lu mel nii lañ ci soxla plateau spécial boo xam ne ñi ci am xam-xam ñëpp dañoo war a dugg wax ci. Mm-hmm. ndax réalité la du illusion waaye réalité la boo xamante ne si ñi ko xam dañuy dëgg position yi nekk mayatu leen ñu du ko leeral te lañ ca xam doy na sëkk léegi la de des hmm. euh, fa mu commencé ba fi ñu toll nii dafa dafa sori te dafa yàgg te képp koo xam ne am nga seetlu di nga gis nouvel ordre mondial li mu nas ak li mu nas organisation boo gis ci at ba ba yaa ngi laaj sànq euh, sëñ xat paska du ko laaj lu gën a jege ci Sénégal mais Sénégal ñëwal fii nga seet lu ñuy tuddee Rotary Rotary Club. Rotary Club. Rotary Club bi ci Dakar. Hmm. par exemple ñoom fu ñu dugg fu nekk. Hmm. dañ koy dugg ak benn société boo xam ne société bénévole lañ ko tuddee. Hmm. bu ñu ñëwee indiale seen financement indaale seen xam-xam di recruter ay nit. indi benn philosophie boo xam ne bu ñu ñëwee moom la ñuy indi convaincre la ci.

foofu lañuy ñuy dugal illusion bi nga xamante ne fii moom lañu lay récupérer parce que dañuy dem ba gëm loola loo xam na ñoom boo ko gëmee rek fu ñu récupérer la day yomb parce que ci seen philosophie lay bokk. Mm-hmm. donc li tax ñu indi ay darajaat ci euh, euh, nu mu tuddati franc-maçon. Mm-hmm. li tax ñu indi ay daraja ci euh, li ñuy tuddee illuminati. gis nga ñiy jiite réew ñoom. Mm-hmm. maanaam dañu ne. ki nga xam ne moom mu ko pouvoir mooy ki nga xam ne génnut ci télévision bi fa see ni jiite dara jéemut a jiite réew jéemut a nekk ministre ndax xam na ne ñooñu seen pouvoir du folliku mukk position bu baax la ñoom ci àdduna bi pour man ko jiite hmm. parce que xam nañ ne tant yaa ngi génn di nga folleeku tant que yaa ngi falu di nga folleeku donc pouvoir bi ñoo di doxal àdduna bi sous l'ombre lañ ko yor te ñoo doxal lépp waaw émission bi daal dama ne woon du ma ma ñu dugg mais xam naa liñ ci a leeral bëri na trop. jërëjëf eh, jërëjëf Modou Fall sa xalaat rafet na trop eh, jërëjëf eh, xat fàkk ma dellu siwaat ci yow fi Modou Fall daanee laa lay laaj benn question mel na ni tudd ne Rotary Club club hmm. ne boo ko seetlee ci Malamine la mais man damay jógee ko foofu dem ci loo xam ne hadiisu saa la maanaam lu manifesté wu tey ci àddina bi yëpp ñu di ko wax muy li Donald Trump waxoon ittifaaqiyatul xarn moom mel ni léegi. Eh, ah maa ngi ñëw moom laay ñëw ittifaaqiyatul xarn maanaam ñu jéem a fexe ne Xudsu mooy capitalu Israël mu toxal ambassadeur foofa wane ne bëgg na ñëpp toxal fa seeni ambassade foofa alors ñuy dem di dem ba si yàgg ñu dégg ne am na ay pays arab yoo xam ne d'accord nañ fi ñu ne defar seen relation ak Israël bon li nekk sama jaaxle foofu nag buñ d'accordé ci defar seen Israël ak seen euh, relation ak Israël. teg seeni ambassadeur demlante demlante dikkalante commerce mondial dox Palestine ay na ma fan lay mujj. waaw xam nga waxoon naa la ko ci tàmbali bi. Hmm. nee la julli ñi dafa am ay workat. Hmm. xanaa xamoo am na ci ay arab yoo xamante nii pour may waa Israël suuf dañuy ñëw ci ay palestiniens jënd suuf ci ay palestiniens joxaat ko ay yëngu. ay arab ñooy def loolu. waaw di xoolal tey. am na ay soi-disant ay borom xam-xam Arabie Saoudite yoo xamante ni ñu ngi jéem a falsifier histoire di wane ni juif yi ñoo am a xaqiya ci Hotspur Trump daje bi mu njëkk a def bi mu nekkee président fu mu dem. Arabie Saoudite dajale fa buur yi jullit yeeg président jullit yi foofu lañ doon nasakanoo ci diir li siècle boobu ngay wax ban ca génnee lu xew bokkoon na ca mi ngi doon waaj parce que. Euh, da ngaa laaj sànq ne ndax am ñu nekk ci suuf mhm. Trump gis na président États-Unis comme suñu président yi de xuusuma eh, ñàpp la rek am na ñu nekk ci ginnaaw moom bokkoon ci li ko wënoon a fale pour mooy déclaration dox boobu mu def woon mooy reconnaître Quds ka aasim abadiyya lil yahud foofa lañ ko doon nase ci Arabie Saoudite Arabie Saoudite nangu ko ak ay imara dëkk yu bëri Qatar gi ko bañ ak Hamas di jug di xeex xeex bu noble bu humanité nangu bu Islam nangu contre juif yooyu ñu ñu jël Hamas ci ginnaaw daje bi dugal leen ci liste terroriste yi Qatar xaw a am lu bañ ñu ne ko yow da nga jàppale terroriste looloo ko waral ban ca tegee ab diir. mais mais lu tax lu tax ñu mën a sanctionné Hamas te sanctionné wu ñu Harakatu Fatah. ah yow Fatah ñi ngi ci kii bi Fatah daanaka la leen taxoon a jóg banan ko. Hmm. Fatah. Hmm. beneen firnde bi mooy bi Trump defee déclaration bi reconnaître Khourson comme capitalu juif yi. Turquie woote ab daje Arabie Saoudi am na réew mi da leen wax bu leen ca dem xam nga comme xaalis mooy mooy doxal àdduna bi dañ leen boo leen demee ci daje bi ñu dagg suñuy ndimbal am réew yu bëri demuñu beneen bi mooy ci tabax googu ñuy tabax nouvel ordre mondial bi xam nga luy fin bi bu doon ab coogi la ñu luy fin bi hmm. mooy mabbu al aqsa seen liggéey lépp loolu la mabbu al aqsa tabax ci kaw al aqsa maabadu Souleymane la temple yi Salomon la ñuy wax mais maabadu Iblis comme julli ñi ni ni jubloo Màkka Kaaba ji égli chrétiens yi di ko jubloo Rome ñu mabbu Al-Aqsa def fa maabadu Iblis te ci troisième guerre mondiale boobu ma la waxoon ne la moom la armée paak waxoon ne woon na troisième guerre mondiale bu jàllee jaamu gi doon jaamu Iblis ci kaw suuf di ko nëbb ak a làq di nasa ka nooc dañ koy def i'lan sarih beneen bi mooy ndax ma daane foofu ndax am na ay xukuma kii loolu kay dafa leer parce que suñu Cheikh Tidiane 7 milliards mo nek ci aduna bi ta bo xolé 20 personnes yëpp ci alal ci aduna bi han ah, seen alal bu doon bu doon alal àdduna bi téeméer la juroom ñet fuk ba ñaar fuk yee mom juroom ñaar milliards yi séddoo la ci def ta famille ci ëpp doole nga xamné ne ñoo yilif ñi yilif àdduna bi mooy ay famille Rockefeller famille Rothschild bi nga xamante ni ñoo dooleeloon Adam Weishaupt bi njëkkoon tek nizam nizaam aalami boo xam ne day dox ci ni Iblis bëggee famille yooyu ñoo yilif buur yi euh, président kii beneen bi droit de veto boobu Jean-Louis doon wax mhm. maam yow naka nga mën a parce que ñoom ñoo gagné ci geer bi ñoo taal guerre bi gagné jox seen créé seen si Unies jox seen bopp droit de veto de seen bopp droit de veto mooy ñaar téeméeri réew yi yu topp ci adduna bi bu ndaje woon ne nan def nangam bu États-Unis ne bu ko def duñ ko def ku ko jox bu France ne nu ko def duñ ko def rii si noonu ku leen ko jox xoolal réew mu mel ni Inde ëpp na fukki yoon France amuñu droit de loolu dañ cee war a jug ay nax la yoo xamante ni li Jean-Louis wax mooy jullit ñi d'abord man damay wax ni arab kii alamul ko mu sunni wala wahaabi yi hmm. comme ñoom alal lan yor amul xam-xam daa yambar lan nan indi seen alal Iran indi seen xam-xam hmm. parce que nag loolu waaye man di wax kun embargo depuis 79 nga bokk ci fukki réew yi ëpp xam xam-xam bi yor àdduna muy xam-xamu nucléaire nga bokk ci réew yi ko ëppale muy Iran na indi seen xam alaalamu suufi yi indi seen dogoog seen parce que ndax ñoo mujj xilaafa islamiya ñu génne warkat yi ci suñ biir xam ni ñun benn ummalan puisque bokk na ci li ñu doon xeexee mooy ni perse yéen ay perse ngeen turki yi ay turki ngeen arabe yi arabe ngeen afghan yi afghan ngeen ah indi ay xaw mi yaar yoo xamante ni ci la ñu teqale ko ñu dellu wàcc ci cosaan dellu ci alxuraan dellu ci ginnaaw yónente bi jërëjëf xat euh, fàkk maa ngi ñëw ci yow euh, Jean Louis euh, ci nouvel ndax munuñ ko xëcc ba mu gën a jege si ci li xew ci Quds toxal ko fa americain yóbbu seen ambassade lenn ci pays musulman yi taxaw signé accord ak euh, Israël bu loolu yëpp amee noo may jàngatalee Israël kon Palestine fan la jëm tey. mais <laughs> Palestine 1948 lañ ko woon foo jëm. mais xamu ko woon tey tey. damay ñëw. waaw Hmm. parce que ca partage ba xam nga ca hmm. mais lan il def dañ quarante territoire bi hmm. de palestiniens est ce que dégg wax jël millions de juifs xanaa faut commencer waaw jeng jeng ba fa la départ laa la wax. Hmm, jeng dëgg kon xanaa wane nañu ñoom seen bopp. musuñu hmm. nëbbu. tubaab yi ah xoolal am nañu benn nëbbu wuñu de. Hmm. ci seen i yëfit nëbbu wuñu di ko def ndànk-ndànk di ko def ndànk-ndànk ba tey kii ñuy wax Donald Trump la xaw ma. ñëw reconnaître Jérusalem comme. capitale d'Israël. defoon naa fi émission gaa ñu yooxu ma ni non. dana ami gis nga tey ay réew nga koy topp ñu dem ba Émirats arabes unis fi mu toll signé accord bi rek a ci des digganteem ak Israël mais reconnaissance bi am na du ca jógee Arabie Saoudite tey ceeb mais suñu responsabilité am waaye su ko wax léegi toujours su suñu responsabilité hmm. def ci nekk xam nga mooy lan dañu am alxuraan am ay addis am gëm diine bi dëgg la wala dëgg hmm. da wax ñaar wax nga dañu am xam-xam ma d'accord waaye yow fu ñu la nee ban aayaa jëkk wàcc ci alxuraan nga tëb di bàkku ni iqra wutal wutal xam-xam et le prophète parle à l'impératif impératif daa maanaam ordre la am na saay-saay yuy wax naan c'est le présent mais le présent vaut l'impératif duñ ñu nax ci yooyu xanaa leer na nil benn parce que xam-xam moo yore àddina moom ci boppam tax nee na bëgg nga àddina ñu ni ko mu ni waaw mu ni ko wutal xam-xam bëgg nga àllaaxira mu ni ko mu ni ko wutal xam-xam bugg nga ñaar yi mënu ko wutal xam-xam ba bi muy dugg ci biir suuf daf ñu dëggal xam-xam benn hmm. nil waaw ñaar am na aaya yéena ma man ci tubaab laay wax ak wolof parce que ñoom lay dégg yàlla neen hmm. un croyant vaut dix non croyants cent non croyants mille non croyants maanaam kenn ku gëm moo ëpp doole junni ku gëm hmm. c'est-à-dire qualité taxaw na est-ce que yaa ngi dégg li ma la bëgg wax qualité taxaw na sur la quantité yàlla soxlawul quantité qualité la soxla léegi c'est pas waaw est-ce que est-ce que am yàlla yàlla quantité boobu soxla ko qualité la soxla baay foofu laa laaj li ma la bëgg a laaj. Eh, bi nga xamee ne Anwar Sadat dafa signé Kaam Defet. Anwar Sadat waaw. bi mu defee signature Kaam ca Kaam Defet. waaw diggante moom ak Israël. waaw. àddina monde musulman. Mhm. ñëpp dañoo wax ne Sadat def na musiba. coupé seen relation. dagg seen diggante moom. waaw jaameetu doole arab yee coupé lépp. mu toxal sees bi jëlee ko fi. tey lu mel noonu moo taxaw. réaction ak monde islamique tey nu parce que nooteel bee dem ba mun a léegi ñëpp ay feeñ li kii di wax waaw kat kenn mënatul dellu gannaaw bu ko parce que it bul fàtte. ba mu koy def ay 1980. boobu révolution baa ngay jax nit ñëpp teel les toog ligue arabe taxaw. Hmm. même du fekkoon am na ay contestation mais tout le monde savait que quel que soit Alpha Delgado Bob dañ ko rek c'est la deewee mm-hmm. tey ya ya c'est-à-dire euh, y a une entente tacite que li mën am dara duñ ci fekk jërëjëf te li ko indi mm-hmm. mooy comme li kii di wax la lâcheté mm-hmm. mais lâcheté bi dañ koy bañ wax mais il faut que ñu wax ko combat ba keroog bi sang bi duggee biir suuf la tàmbali

demee signé itifaaxiyatu kaam defee monde islam yëpp dañoo taxaw du mooyu Égypte sanctionné leen dagg seeni relation permettre mayetuñ leen dara même jaameetu jaamee dawla arabia dañ ko jëlee foofa tey li xew tolloo naag la Saadaat defoon lu tax ñu am ñëpp ñu toog mel ni dañ cee kontaan. waaw xam nga accord de Camp David yi. Hmm. bi mu ko defee. Henry Kissinger. jaam ko Iblis yu mag yi la bokk moo nekkoon ministre affaires étrangères bu États-Unis. Hmm. dafa jël yi. jox ko bi Bijin mi nekkon premier ministre bu Israël ne ko maa ngi lay dénk xeer mana nelaw xeer mana nelaw waaw ummatu umma islamiya hmm. ni ko lay mana nelaw ko noo mana def pour nelaw yi nang hmm. na ko def mu ne waye waaye tuutaar ni yeew mu ne ko sunu yeew rek musiba am ne ko ñun dañu nekk ci ay nelaw ta nelaw yoyu hmm. faw ñu conscient que ni ñom nañ jëm ñun nag ñoo xamul fi ñu jëm parce que waxoon nañ ni euh, dafa am euh, benn kàngamu juif bu waxoon ni lan yakuna hunaaka adyaan ba'dal yawm nee na diine moom hmm. bu ñu waxee diine mooy ñun diine dëgg yi ñuy wax nee na diine moom jeex na nee na ñun dañoo war a sàmm valeur juif yi te am na keneen ko waxaatoon ci ñoom nii nouvel ordre mondial bi kenn lu ci dugg lu da ngaa bëgg Lucifer muy Iblis Talmud nga xam ni juif yi ci seen ndox dañoo am ñetti téere muy tawraat talmud ak protocole yi lim diglu li ma wax li mu bind ci talmud dan ni yajibu ala kulli yahudi an yabzula juhdahu li man'i ifraaki baaxil umam fil ard nee na juif bu nekk war naa fexe ba tere yeneen yeneen kii yi maanaam ñoom sax ay bàyyi ma la leen ngir bañ leen a boole ci doxalinu àdduna pour nguur gi des ci ko loxo yi ñu ne nag pour loolu pour mu am faaw ñu taal guerre yo xamante ni day ray suñu sunu alam moy trois guerres mondiales yi te wax ji deggu na ci ñaari guerre mondiale yi taal ak troisième bi nga xamante ni dafa wara opposer ñaari force muy xelfu NATO muy muy OTAN ak xelfu songay xelfu NATO muy composé États-Unis Occident ak armée bi Arabie Saoudite nekkoon te te doon tappale naan guerre yamana ko taxu koo jóg ñi ngi ci rëdd bi beneen xalf bi mooy riifi fiin ak euh, Iran te guerre boobu nee na buñ ci la ko toxu ci albarbaaj bi ni ko nee na mooy tadmir al alamu islami buñ ca jógee nag ci la seen xut sa woogu ci leen di mabbu al aqsa est-ce que loolu amuñ ko fi na ndax alam ankay sore na fépp damar nañ ko fi ankay damar nañ ko li euh, béegi nii gis nga moo ci deson fii ne yàq nañ waaw waaw xam nga euh, boo xoolee maanaam daal doo comprendre jullit ñi puisque ñun mënuñu am garantie wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin mënuñu am garanti am alquran boo xamante ni lépp luy nizaam ci àdduna bi solutionné na ko tax eh, kii wax na ko nee na xam-xam xam-xam mooy àdduna te pourtant julli ñi bi ne yilif àdduna pendant ay siècle jàngal tubaab yi mathématique jàngal leen chimique jàngal leen physique jàngal leen musique jàngal leen xam-xamu pharmacie ah bi julli ñi de opéré ah bi julli ñi de seen kii yi tey boo leen demee ba di euh, def direct ñëpp di leen dégg mais wàllu magnétique ah yooyu julli ñi ñoo ko njëkk a léegi loolu lan moo tere ñu dellu ci dellu ci suñu alquran dellu ci yonente bi salaay salaam génne warkat yi ci suñu biir pour tabax nizaam bi nga xamante ni moom la yàlla. jërëjëf euh, xat fakk waxtu dab nañu yan kàddu ngay tàggatoo. waaw kàddu yi may tàggatoo ay kàddu yu cant lay doon maa ngi sant euh, sama doomi baay bi sin Ahmad Dame Seye ak euh, mboolem nag euh, waa Touba gi ma jóge ak ñaam nag dañoo bokk ay groupe mhm. waa waxul jaal xaq waa lax saabit waa euh, Kawaadirul Muridiya mhm. Cheikh Nouroullah mi ngi lay waaw <laughs> ah, waaw maam Thierno <laughs> ñoom ñëpp daal maa ngi leen nuyu di la sant wax dëgg yàlla di wax nii danañ ko wax fii ndax ñun ban la yàggee seetaan boobu ay xale lan mhm. rajo Dunya ak di la diglu da danaan takk fi ndefer di di diglu say émission yow ak ñoom Serif Serif ñu ngi koy nuyu <laughs> euh, Jean Louis di nuyu daal mboolem ahlul bayit ak euh, mutasayifa fay ak wahabiya yi nga xamante ni ñoom it <laughs> euh, gis ulan ci mu amara bi <laughs> mu amara kaw ni di dal isaabul muslimin hmm. di ñaan daal yàlla xettali umur sinama salay salaam yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def conscient ci peuple yi tan xam ne dañuy nax gis nga démocratie bi ñuy wax hmm. Euh, américains yi dañ koy utiliser rek fu mu leen neexee mais bu doon démocratie dëgg alamu islam yi bi ñu fi nekk ci ay buur ñëpp folle ko fa peuple yi mën a fal ñi ñoo xamante nii seen jiiti bopp la jàng seen njàngum bopp leen seen histoire parce que loolu bokk na ci protocole yi mooy fexe ba duñ ñu jàngal suñu bopp jàngal ñu werante jàngal ñu loo xamante nii ba ilaa yawmi diin nizaamu al toppe lay doon euh, xat fakka ñoo ngi lay gërëm di gërëm it si maam Thierno Nourou la ndax dañu may jàppale ci ay invitation ah. toujours ku baax la borom baax la wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm euh, fi nga daaneelee laay teg benn baa rek man affaire démocratie ñaari mbir tax na gaw ma ko euh, Mohamed Moursi dañ ko fal Égypte mu gagné cinquante quelque pour cent ñu xëy daaneel nguuram Occident tàcc ki daaneel rancé wu ci gannaaw waajooju moo tax man gaw ma luy démocratie alors léegi euh, bi loolu amee euh, nga xool Erdogan dañ ko fal ci waa démocratie mu gagné cinquante quelque pour cent ñu xëy wut ay quelques militaires ñu kuude ne dañu coup d'état gars yi raase wu ci garab militaire yi tàccu ndimbalal yàlla moo ko ca fekk population ci moom nga mos a gisee civil bu yéeg ci kaw char de combat di wàcce ab ab ab colonel xam nga kooku pas-pas bi nit ñi amoon ci diggante moo ko indi moo tax man ñaar yooyu ma tax ne gëmoo démocratie li xew kay mooy ñoom buñ li ñu tuddee démocratie mooy ku nangoo rancé wu ci ñoom pour man noonu laa ko jàngate sans limi yan kàddu kay tàggatu eh, di la gërëm di la sant ci émission bi ak question bi nga xam ni véritablement c'est une question sensible ak na ko waxoon ca départ ba redouté redoutable parce que yu bari def ci laxas mm-hmm. pour nga dugg ci di gërëm mbokk mi sëy

yàlla digleen ne mhm. yéen a gën ci peuple yi ma mës a so euh, créé yéen a gën diine yéen a gën alxuraan yéen a gën ci nit ba pare ñu nekk gan nekk ci gannaaw ci gannaaw loolu mooy tànk que résoudre ñu question boobu duñu résoudre dara yàlla soit gëm nañu ñaari question fi mën a am nag soit dañuy gëm li yenent bi wax ci alxuraan ni mooy dëgg soit ñu xam ne loolu dëgg la mais ñun topp ñu ñaari affaire yoo rek fi am kon nag dellu si xoolaat alxuraan bi parce que c' est extraordinaire man damay lire alxuraan en le Coran en français. Mhm. traduit mais du ma jël ñetti ay livre walla ñeent pour bañ rek jaxasoo ci yenn termes yi xam nga <laughs> mais damay gis ni mais la may jàngalee yéene France ci ci classe yi mhm. mais mi ngi ci alxuraan du may jàngal booy par exemple engagement. c'est-à-dire lutte contre la lutte contre l'injustice. Donc combat pour la liberté, pour les valeurs universelles. Mais Al-Quran, mhm. pourquoi ne combattez-vous pas pour la cause des faibles et des opprimés Enfants, femmes, hommes qui implorent le Seigneur en disant Oh Dieu, sauve-nous de cette cité injuste, envoie-nous un libérateur. Mais moi, je suis Mais exemple, je vais vous donner, je ne peux pas le Al-Quran, parce que je vais ça.

pourtant loolu la Muhammad wax mooy kun fa kun mais doo ñeme wax kun fa mais kenn danga koy wax dara du la ci fekk jërëjëf Jean-Louis euh, Camara ansaaru diin yëpp rek moom bëggoon naa ñëw fii sax ah <laughs> jërëjëf Jean-Louis euh, ñu ngi lay gërëm euh, ci invitation bi ñu la soxlaa fekk nañ la ci ay yitte mais bi ñu la woore nga ragg sa yitte yëpp buy si ñi ñu ngi ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla di fi misaani asanaati ci di gërëm it waa madrasatu ahlul bayt xam naa tomb bi nga doon junj nag xam naa fi nga jëm bu baax mais xam nga tomb boobu lu ko doon neexal <laughs> xam nga lu doon neexal tomb boobu waaw ma mënoon am kenn ci waxaabi di uh-huh. ñu mën a toog ak yéen mais waxaabi di xam nga ñoom indi leen ci débat ray leen moo yemale xam nga loolu rek moo mën a neexal tomb boobu xam naa loolu tomb boobu waaw nañu am fitu ñëw toog loolu laa wax dama ne xam nga loolu mooy neexal tomb boobu pour ma am kenn ci ñëw toog yi waaw yow ci sa bopp mun nga invité xam nga man ku ne xam na ma mën nga invité keneen koo xam ne tax bokkul ci man hmm. mais xam ne histoire islamique. d' accord jërëjëf jërëjëf danañ ci dox kon bu soobee yàlla di gërëm euh, xat fàkka sey euh, jógee ko ci tuubaa di ko ñaan yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen di gërëmit it sëriñ maam Thierno Nooru laa ndax euh, lu dee ci rëbb yàlla ak naat su ma mënee am invitation ci xat fàkka ci ci loxoom la ko yàlla jaarale maam Thierno moom daf may jàppale ci suuf ci invitation yu am solo waaw maa ngi koy gërëm bu baax di ko won na ko Eh, combat bi mu tëgg moom ak eh, Alfayum Diallo maa ngi ci gannaaw man moom laay jàppale. waaw non non ndax jàng nga xuma lan financement xum nu mu ko waxee <laughs> waaw boobu maa ngi ci gannaawam kon maa ngi lay gërëm boog di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla defi misaani asanatika di gërëm suñu réalisateur di gërëm prono de son di gërëm waa régie bi di gërëm caméraman yi di gërëm it mbokk yi nga xam ne mbaax moo leen ñor ñëw fekkee si jotaay bi liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci ba jaam yàlla yi mën ko seetaan ñi ngi ñaan yàlla boole ñoo yow yiw bi ñu ngi leen di jox rendez-vous dox daje ajuma bi di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu قلبي له موئل يرعاه بالحب